Let's go. Turning the crowd loud, she walks in, she walks in, she walks in.

de le Son excellence, monsieur, président de la République d'Afrique. Il a un tout rempli d'argent que justement, besoin de Mais fuck ils sont Tous les moyens pour ça, ont Tu veux

ñu ngi nuyu ñëpp ah, ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen bëggee bu ñëwaat rek ci benn waxtaan bu ndaw rappelé waat encore sénégalais yi wareef yi mooy devoir yi ak droit yi yi nga xam ni doomu aadama bu nekk war na ko mën a akkerir war na ko mën a am waaye war na ko mën a xam ni bu ko amul tamit lu ko war la donc euh, malheureusement et dommage quand suñu réew xam nañ lépp suuf wareef suuf priorité. C'est très dommage quand même, c'est très dommage. On n'y peut rien. Le constat est amer. mënuñu dara da ngay gis xamni fi quoi comme peuple perte génération future yi mais pas li fi nekk li fi nekk moom yàlla ci boppam moo ci buggul dara ci boppam yàlla ci boppam moo ci bëggul dara moom moom li li fi ne nii moom li fi ne constat bi am jamono jii nii quoi Sénégal li li fi dox yàlla ci boppam moo ci moo ci amul fierté moo ci amul mbégte léegi nag ñëpp nuroowuñ ñëpp tolloowuñ waaye senegal ñi yàq ñoo ëpp junni yoon ñiy defar ñi yàq ñoo ëpp junni yoon ñiy defar loolu moo tax xare bi day metti lool waaye man gëm naa ni gëm naa ni génération future bi dinañ dinañ am luñ changé xaw ma nag dinañ ko fekkee duñ ko fekkee waaye daal Les me len di wax ni nak du ay app 20 ans 25 ans c'est dans moins de 100 ans quoi Et 90 ans 100 ans ma defu ndank ñun ñep duñ ko fekke ma defu ndank ma ñu ci am chance deug deug ñoo ño kay fekke sénégal bu changer exactement quoi ba xam ni sénégalais 99% yi changement lañuy gëna bëgg que vraiment delu tu ginnaw y a des choses quand je me ma koy wax seetaan damay damay damay xaqataay mais après je me dis que euh, voilà quoi c'est c'est normal c'est normal c'est normal euh, Là, maa ngi gis partout forum mondial de l'eau forum mondial de l'eau <laughs> euh, man xaw ma kañ la sénégalais yi di un séminaire forum yéeg rassemblement yeeg wax ju bari jeeg c'est que <laughs> dëkk dëkk dëkk caaxaan dëgg la Sénégal dëkk caax man musuma gis dëkk caaxaan bu day noonu musuma gis dëkku caaxaan ci benn xeetu niveau caaxaan boo xam ni et dañ am ci dañ ci am benn dañ ci am fierté boo xam ni c'est <laughs> que man benn instant damay toog ma ne man <laughs> réew mi moom man ma am di ci wax rek mais te dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla teguma ko yàlla teguma ko quoi maa xool xool xool ba aw ma lan may def ma ne xaaral ma waxal dëkk bi wala xaaral ma xeexal dëkk bi waaye daal ndeysaan dëkk boo xam ni dañuy vogewu seen àdduna yépp ci faux débat ak ay futilité démb y match non euh, Real Barça <laughs> Real Barça ma gis euh, ay étudiants plus d'une centaine d'étudiants sénégalais ci bir faculté faculté bi manam bir université ñu def gang génn di di di jibile quoi Barça eh Barça eh mais dama gis loolu dama tit mais nak après sama xel delluwaat man ne ah Sénégal la nak quand même <laughs> ay étudiants ay étudiants émotion bi amoon na fu ma yaakaaroon na fu mu yem quoi mais amna lo xamni au delà de l'émotion c'est des conneries quoi c'est est des c' extraordinairement des ay booy moy temple du savoir temple du savoir dañ ñu fa tek noonu foofu le président war a génnee le ministre wala génnee foofu le maire wala génnee foofu le député wala génnee foofu le borom xam-xam yi wala génnee pourtant li bëy bi lekk noonu bëy cëppi-cëppi nag yaa ngi ko lekk ba ne tekk toog match bi ngeen seetaan yéen bay génn di yuuxu Barça yee moom la Canada seetaan ba mu jeex te kenn génnul ne Barça yee moom la Espagne seetaan ba mu jeex Espagne ba mu daj te kenn génnul ne Barça yee ci beneen dëkk benn université même université Barcelone génnuñu di wax Barça yee ay étudiants ay Barcelone génnuñu naan Barça yee comme ni ngeen def même ay étudiants Real Madrid génnuñu ne wax ay kii kii yee. c'est incroyable c'est incroyable ay étudiants hein. brune et école jardin d'enfants ma ah école primaire ma ne ah ndeysaan université là hein. alors futur manam borom xam-xam yi ñi nga xam ni ñoo war laboratoire yi ñi créateurs yi créatrices yi assemblée nationale ñu fa war a nekk ëllëg euh, magistrature bi ñi fa Euh, législature bi ñi fa wara nek et cetera et cetera ñu ñoo taxaw tay dajalo junniya ah, def yar ñi def mu neen ñi yor ay tisan ñi yuxu andando Barça e Barça e eh, desan <laughs> dama ko setan triste nak mané pourtant li ngeen setan mom le monde bi yëpp ah monde bi mom lañ setan mom la partout fi dama romb na fi man dama don dox sama soxla mais café yi gaay ñi ngi tok ci café yi di setan genn yëpp genn dem sen yoon. pour am ambiance tout sax gars ci café gi la ñuy tok café gi jënd sa café tok ni ki sétane pare gars dem même bir Barcelone amul ni eh, effervescence bi am Sénégal ni amul amul madame match Barça bi ay amul ben c'est-à-dire faculté yi ñi faculté des sciences juridiques faculté yëpp manam amul ben université ci monde bi bu def comme université génn di di D'accord. Vous avez gagné quoi dans ça kenn terewul leen jubilé mais jubilé fu mais ba tey ay étudiants dajaloo nii di yuuxu di di yuuxu di dem di ñëw di jubilé <laughs> c'est triste quand même c'est désolant mais bon c'est le Sénégal quand même le Sénégal c'est euh, cercle xeetu connerie dañuy xëccoo maa la gën a con quoi que tu la ëpp xam-xam maa la gën mais dañuy xëccoo maa la gën a con maa la gën a deng maa la gën a ñàkk xel loolu Sénégal ku ñu valoriser mooy ku ñu ku wane ni moo gën a ñàkk xel mais maa ëpp <laughs> Sénégal du dëkk boo xam ni dañuy maanaam dañuy dañuy gërëm wala dañuy yëkkati wala dañuy valoriser ku am xam Sénégal maa la gën a con moo moo gën a moo gën a siiw koñ bi ku la gën a con moo gën a siiw ëpp xam moo gën a seey réew moo xam la nit c'est désolation la mënoo ko xool di am di am. 0,1% qui un pour cent bi dina changer munul nek ku ko def dafa deuguer fit ce pays là non c'est foutu c'est foutu pour de de bon pour de bon ken mënu ko sauver je vous le dis haut et fort le mal est trop profond même Espagne bi ñu calcio boobu bu defé derby boobu non li ah, lii fa wallahi alazim azim <laughs> man dama len di seetaan di rek <laughs> démb ñoo génn Barça yuuxu Barça tey ma gis leen ngeen génn di jooy ne da ngeen ay xom forum mondial de l'eau mais yéen waratul war yéen ñàkku leen dara yéen vous savez tout yéen war leen jooy dara waru leen jooy dara yéen a génn démb di jubilé fii partout ku nekk di jéem a wane benn fierté mais tey ma gis leen ngeen di jooy ay forum de mondial de l'eau ngeen di ay forum ak ay conférence ak ay séminaire mais vous êtes yéen boo leen xamoon fu leen aduna àdduna àdduna fu mu nekk ak Sénégal fu ne dafa bokul sax quoi déjà aduna aduna la wax bu ñuy naan àdduna ñun dañ cee dégg rek lañ ci am xamuñu ko mais dëkk yi ma dem yi dëkk yépp dem naa fa teg fa tànk ndox gratuit la gratuit approvisionnement de l'eau potable gratuit Corée du Sud le tax ma leen di jox souvent exemple Corée du Sud Depuis que xam en 1960 moo gënoon pauvre Sénégal en 1960 Corée du Sud expérience j'ai fait 8 mois là-bas en Corée du Sud 8 mois dem ci presque depuis, yu bëri bëri bëri dem Wuhan dem Busan dem naa euh, partout. Corée dem naa régions Nous avons 8 mois 8 mois pour expérience Corée du Sud nous avons que le est gratuit amul facture amul compteur Corée du Sud laa dem gis ni fofu c'est gratuit en 1960 mo gënoon torox Sénégal mo un torox Sénégal mais développement bi dañuy dem ba mun a ndox jàpp ndox exploiter approvisionner jox eau potable gratuit Madame, Islande du Nord Iceland deux fois premier bi j'ai fait deux jours deuxième bi une semaine Iceland ndox gratuit Mo jangar fani fi tam ndaxé amuñu facture ndox cent gratuit ndox mo len wër ñu exploiter ndox partout ndox bi day ñëw à deux du couper ndox du fa couper muk, muk, muk c'est gratuit Corée du Sud c'est gratuit Madame Canada Non, gratuit Canada gratuit Nord mun ngaa ubbi sa robinet suba on a le amul de bu am facture amul de bu am compteur Slovénie nous ay aux États-Unis non et cetera et cetera et cetera demain cetera France ndox cheru fa doo ko sax yëg en France donc ko sax yëg amul benn kër bu couper France ndax dañoo fayul ndox amul benn kër ba ngay ñëw Slovanie Slovaquie Slovanie Slovanie ndox c'est gratuit bo démé France amul kër yi ñuy coupé ndax ñàkkum ndox wala ndox moo coupé wala ndox doo sax gis facture bi en fait doo ko sax yëkk presque c'est presque gratuit c'est presque c'est presque gratuit ak état yu bëri bëri bëri bëri aux États-Unis yoo xam ne ndox c'est gratuit bu dee tamit ñeneen ñi dañuy fay fay goo xam ne ko sax ça coûte absolument rien du tout te ndox mi ak Taïwan ah Taïwan aussi c'est gratuit et cetera et cetera Brésil ah ñi nekk Brésil tam nee na Brésil sax ndox est gratuit Mais gis Sénégal ñuy dajaloo <laughs> di wax ay forum mondial de l'eau mais lan Californie en Californie c'est gratuit waaye forum mondial de l'eau lan ngeen expliquer xanaa ndox bu bëri ci yéen ba mënu leen ko exploiter loolu rek ngeen mën a wax Sénégal foo leen forum mondial de l'eau moom xanaa da ngeen fay toog naa waa ndox mi de dafa bëri yàlla ji mi ngi ñuy wàccal ndox ndox mi vraiment sonnal nañu yéen la ndox sonnal te mënu leen ko jëfandikoo monde bi yëpp ña ndox sonnal exploité nañ ko Japon exploité nañ ko c'est gratuit partout yéen boo leen too toogee di wax ay euh, forum mondial de l'eau xanaa vous parlez d'inondation <laughs> inondation ngeen mun a wax dama xaw ma lan ngeen mën a wax te lu gën a paradoxal mooy dëkk boo xam ne day am inondation mais dëkk boo xam ne ndox dafay couper ay semaine ngaa yor ay bidon di wëri <laughs> lu paradoxal c'est-à-dire bu ñu tegoon ay sénégalais nii ñuy raconter seen seen seen histoire ci yeneen yeneen pays dañuy reetaan dañ naan mais ñi ñi ñi problème mu xel lañ am buñ togon tek Sénégal ñeneen ñi yeneen dëkk diko dëgg dana ñi problème xel lañ am parce que paradox lu lu gëna paradoxal ño xam ne nañ ndox mi dafa bëri seen dëkk ba dañuy day inondé wu ndox mi mu amuñu amuñu fuñu fuñu ci ndox la dëkk ci ndox la jall jàll seen dëkk ak malgré que nu ndox mi bëri bëri yoy yëpp géej wër ko nat nat pratique bi jégé leen et tout géej gi partout mais nonu la ñuy ay semaine ñu am ndox ay semaine duñ am ndox ay semaine ñuy rooti ay quartier yoo xam ni buñ amee toq ndox quatre heures du matin ba cinq heures du matin la six heures mu arrêté six heures mu arrêté ñu dàqantewaat ko guddi ba guddi ndeysaan <laughs> man bu leen gisee ñu ay forum mondial de l'eau <laughs> ça m'a fait rire quand même <laughs> oui c'est vrai loolu forum mondial de l'inondation lool lañ fa waroon def forum mondial de l'inondation waaw c'est normal lool bon ma leen forum mondial de l'inondation mané waaw lool mom c'est normal <laughs> forum forum mondial de l'eau vraiment Sénégal ndox amul gratuité c'est trop cher keur yo xam dañ leen di couper ndox ndox besoin de xamné la pour nga am besoin vital la bo xamni pour nga am ko Sénégal di nga daw safa ak marwa safa ak marwa pour am lo nan <laughs> pour am lo nan te fo gas jot ndox nappe phréatique bi c'est à deux mètres fo gas teen jot ndox partout ci ndox la dox Sénégal ci ndox la dox ndox mo leen wër ñuy dox ci ndox ndox yalla di leen waccel nonu lañ maré je sais pas si je me fais comprendre dama Sénégal ci ndox lañuy ñuy dox nappe phréatique bi soriwu leen asamaan si yàlla di leen bàccal des tonnes et des des litres et des litres d'eau partout ay géej ay cours d'eau ay bras de mer ay lac partout dañuy dox ci ndox yàlla day wàccel ndox ndox wër leen ñu ñàkk lu ñu naan <laughs> man gisuma lu gën a paradoxe réew moomu réew laay seetaan di rek rek <laughs> <laughs> damay damay yeewu rek sincèrement dugg ci internet bi rek di leen seetaan man dafa mel ni bokk ma ci réew ma dafa mel ni damay taxawee nii di seetaan réew di seetaan Sénégal di seetaan Sénégal man bu ma bëggee reetaan dëgg dëgg dëgg senegal laay seetaan gars yi acte yi ñuy posé c'est très rigolo <laughs> ñoo ñoo raw saa neex man senegal boo génnee saa neex yi ak saa njoogu yéeg yooyu dara du fa deseti dara dara du fa deseti wallahi lazim réew mi yëpp saa njoogu ak saa neex la réew mi yëpp ay sketch la réew mi théâtre la réew mi gars yi ñuy dundee ñoom xamuñu sax ni théâtre la c'est-à-dire sketch rawul nu sénégalais yi dundee loolu loolu jarul ngay dem di di leen tourner loo film ñëwal enregistré ko yeewul suba yor sa caméra rek di jël koñ yi di gis gars yi ni ñuy doxee ci mbedd yi comme ay mala ñii di traversé tali bi rom xamuñu feu ñii feu tali yi amuñu ay feu gars yi di oto bi ñëw peep yeneen peep peep ñii mbëkk kii kee daw kee ñëw jaay fee jënd caaf te na xoolal ndox fële donc Sénégal ci boobu mooy film quoi en fait boo ko jëlee nank rek bañ a yàkkamti di ko jël di ko jël nga dajale ko bul mon bul monte dara nga yóbbu ko monde bi xale bu seetaan boo boo bëggee jommal nasaraan yi ñëw tegal leen ko xale yi ndaw tegal leen ko ñuy seetaan nii.

barke alxuraan film amul film bu raw Sénégal boo bëggee traumatiser ay ay xale nasaraan jëlal Sénégal ni ñuy dundee nga def ko vidéo film jox ko xale nasaraan yi barke alxuraan boo leen buggee traumatiser toute une nuit ñuy cauchemar ay nuit cauchemardesque boo ko buggee rek boo leen bëggee terroriser rek jëlal Sénégal nga def ko vidéo nga tegal ko tubaab nga tegal ko sa doom ku xamul Sénégal léegi mu dof guddi gi yëpp day fanaanee yuuxu parce que danaan man li ma gis nii c'est incroyable ndax nan la nit di mën a dundee ci yu mel nii man sincèrement damay toog di leen seetaan man moom damay toog nii di leen xool di ree rek di xàqataay <laughs> lu gën a neex na man ak ñoom man ak ñoom c'est une longue histoire damay raconter seeni seen vie ñii reetaan ne man man dama neex man ne man comédien la mais man ma leen ma gis nii ñii ñooy acteur yi

man mi dëkk bind film bi de man mi di scénar scénariste bi maa bind film bi mais jéewu ko scénariste laa ñoom ñooy acteurs yi man scénariste bi ma bind film bi ñoom buñ joué ñoom ñu ñëw seetaan film bi man scénariste bi ñu ne <laughs> yow rigolo yow yow comédien nga man ndakate sama yi acteurs yi nii ah. bu ñu wéroon dëgg dinañu xam ne film bii nii ci ñoom laa ko inspire man scénariste laa damay bind rek te li ma bind nii ñoom la ñoom ñoom laa décrire nii ñoom ñoo koy seetaan ñoom léegi dañuy dem ba acteur ñu jouer film di di joxoñ scénariste bi naka yow yow tu es rigolo yow yow comédien nga <laughs> man nag damay taxawee nale recul di leen seetaan di ree rek man bu ma nammee dëgg-dëgg reetaan Sénégal laay xool tout est rigolo tout est rigolo ak te ñuy posé lépp say démb dama seetaan étudiant yi ree maa ngi toog man rek wéet ree ndeysaan lu mu turne rek xool bu mu xoolee débat itam ci télé yi damay ree démb ma seetaan beneen waaye itam TFM quoi muy wax benn kum invité donc wéy comme Ousmane Sonko nitu fitna la parce que gis ngeen saa yu defee discours rek fitna lay def waa ji naan ko mais comme lan lan mooy fitna xoolal waa ji bàyyi moom lu mu waxoon de sujet bi dafa waxoon ni saa yu defee discours fitna lay woote. waa ji di ko pressionné nañ ko mais lan comme lan lan la woote fitna lan waa ji ne ko non woote na comme mortal combat woote woon na mortal combat <laughs> woote woon na mortal combat. <laughs> léegi c'est que lu ma gën a reenaloo mooy en fait sujet bu mu indi parce que moom discours Ousmane Sonko bu mujj bi la wax mu bàyyi fa loolu dem ci daaw ne woote woon na affaire <laughs> rek ma xaaxataay ma reeti <laughs> ma ne kii si journaliste la rek ma daaj man damay nekk sama néeg au nom de bu ma nasaraan doon dégg dana ne kii dafa dof émission grand jury ah wallaay xaaxaataay ah ma ba jàpp sama biir bi ma ne non mais réew mi amul waaye <laughs> kii question bu mu laajte mi ngi nii de question bi fii la laajte waa ne ko léegi fan ci discours am fan la woote fitna waa ji ne ko non dafa yàgg woote fitna parce que waxoon na fi mortal combat waxoon na fi <laughs> ma ne mais kii discours bi la wax di <laughs> Babacar Fall la ah. te ñu ne journaliste la de mais waa dafa ma reetaan loo journal Babacar Fall grand jury doomu xaxataay xaw ma seen mais kooku rey na ma démb dama ree ma ne laa ilaaha illallaah réew mi lañ ko jaay waaye est que nit dina ko bëgg sax <laughs> eh, gis gis nga réew mi balaa moo neex rek da ngay reculer pour xool réew bi man réew mi damay ree rek barki dama kontaan <laughs> damay kontaan ci réew mi quoi <laughs> réew dàq ko nag réew dàq ko de réew réew dàq ko ci réew bu neex a ngi noonu réew bu neex a ngi noonu réew mi déggu ma dañuy concours maa la gën a ko <laughs> donc euh, ah bon grand jury la man man benn dagg-dagg laa ci seetaan mais waa ji na ma ardo moom Babacar Fall xaw ma ma ardo daama xaxataay xaxataay ma ne lay waa ji génn ci sujet bu mu wootee moom moo wootee <laughs> de ko waa ji ne ko fan la waxee ci discours am bi mujj nii fan la wootee rek waa ji génn ci discours yi dem ci yeneen woote na fi Kor Komba <laughs> wax na fi saa yi benn instant toog ma ne man réew mi foog ma bàyyi ko yàgg te bu ma ko bàyyi tam dama koy gën a raw parce que réew mi dama ko raw réew mi dama ko raw réew mi moom dama dama ko raw quoi bokk naa ci penseurs yi dama ko raw quoi des fois dama naan est-ce que du ma reculer bàyyi leen ba yàgg xanaa ma tarde waat tuuti bu ma ñëwee tolloog ñoom niveau mais dama ne bu ma leen bàyyee tamit bu ma leen bàyyee. nasaraan yi nekk ci nasaraan yi dañ may évoluer loo waat sama brain ba mu bu ma taalaatee dañuy dañuy gën a nekk dof sama kanam te bugguma loolu bugguma chaque jour di di leen romb ci mind bugguma chaque jour di leen raw ci xel donc comme rawan rawante bi soriwul noonu dinaa leen tiim di leen xool di ree mais bu ma leen bàyyi woon tuuti rek dem ca nasaraan ya di di di informé wu foofu sincèrement dinañ ma yóbbu ci benn niveau boo xam bu ma leen xoolaatee dootuma leen gisati day mel ni avion nga nekk ci kaw avion di yëndu ci suuf doo gis dara moo tax ma ma ne bàyyi ma jage leen nii rek waa di leen xool di ree rek réew mu rigolo la réew mu neex la <laughs> réew mu neex la <laughs> macha allah en tout cas dëgg dëgg dëgg ku bëgg sa ku bëgg a sa njaboot ku bëgg a rëccal sa njaboot. da ngay da nga leen di da nga koy li nekk Sénégal liy dox Sénégal parce que média bi moo censé di yee doomu aadama yi di sensibiliser mais média yooyu moo bëri pourriture moo bëri ay ay anti modèle donc ban ñooñu xaw ma lan la ñu war a xamal nit xaw ma lan la ñu war a xam <coughs> xelal nit crise sociale bi moo moo kemtaane bu ma xoolee encore ma gis <laughs> non mais non mais c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable encore une fois dëgg-dëgg nag ak naqar laa waxe turama ah, bugguma sax wax turam dëgg dëgg dëgg ak naqar laay waxee turam quoi ay temps tànjaan yérim sekk buuba nduu waajale lu mu turati birima mais ñoom gars yi xeet googu ñooy toog ci tale yi quoi sénégalais yi bàyyi seen occupation toog di seetaan ñooñu comme arbre à palabre <laughs> ku nekk di wax sa xalaat wax sa xalaat quoi <laughs> télé daal débat bi mooy wax sa xalaat quoi teg benn sujet ku nekk wax sa xalaat ñu dem tegaat beneen ki gars yi wax seen xalaat ñi dem tegaat beneen wax seen xalaat ñi dem ku ci nekk di jéem a xool noo yéemee keneen ka <laughs> ku ci nek di jema a no yeme sa morom quoi lu c'est c'est c'est ah, en fait eh, yàlla dimbale na ma du ma seeraa quoi ay ay setu jo fal ay tanja hmm ay dam je ay ma dambal jaañ <laughs> C'est-à-dire, il, faut, il faut oser le dire. wax ma ban importance la am nit toog ci télé nan oui Poutine du certain télé yorul portable mais lan la ñu bëgg en fait lan la ñu bëgg décrire fofo lan la ñu bëgg a décrire foofu lan benn extraterrestre wala benn monstre en fait man maa ngi doon wër en fait kii lan la lan la ñu bëgg a gëmloo ci Poutine en la mais lan mooy objectif bi na ma na ma kenn dimbale wax ma en fait Yérim Seck lan moo newoon objectif bi lan la ñu bëggoon xamal ko en fait réellement que Poutine du seetaan télé du lire journal ay yorul portable lan la ñu bëggoon wax. mais putin bu sétanul télé <laughs> am kuy sétan télé ku ñëw di ko ko wax kon mu ngi sétan télé bu lire journal am na ku koy lire le journal ñëw di ko ko wax bu yoru portable am na keneen ku koy décrocher portable ñëw di ko wax <laughs> mais lan lañu bëgg a jàngal en fait mais absolument rien jangaluñu dara tous

<laughs> amul luma xamul tele sama tele ngi ni sama tele ngi ni musuma ko tal li tele la no commande ba ngi ni commande ba ngi ni li tele la barki sayyidina muhammad musuma ko tal sur le Saint Coran sur le Saint Coran lay wat sur le Saint Coran musuma tal tele? bi musuma ko tal billahi wallahi wa taalaahi man duma tele Et je suis bien informé. Je suis bien informé. C'est-à-dire, kenn mënu la wax lan mo nek objectif en fait hein? Yeme yeme lu dal. wane ni man ak Poutine ñoo bok koñ wala ñoo bok. c'est-à-dire lan moy information bi yéen lan ngeen ci jang? lan mo information bi parce que yéen yéen ay seetaan lan mo newoon information bi ban information la doon joxe ak lan moy objectif bi lan moy information manipulation quoi non c'est triste télé télé mini portable télé mini portable coupe d'Afrique bi c'est portable cette année. d'Afrique bi c'est portable cette ko année. Bah vous ça. c'est ça. quoi ay ñu ku impressionné morom quoi ci wax sa mais wax sa mais man impressionné quoi <laughs> en tout cas il en tout cas ma ne waa forum mondial de l'eau monde bi dafa am fenn fu ñu toll ñi ngi ci ay énergie renouvelable ñi ngi ci ay eau renouvelable même ndox dañ koy renouveler <laughs> monde bi foofu lañ toll yéen ñi doo ay forum mondial man xaw ma leen dugal ci mondial bi forum mondial de l'inondation man nangul leen ko vraiment mais forum mondial yéen bokk leen ci monde bi bay wax waxu mondial xam nga Sénégal yabaate nañ yéen xamu leen ba léegi bokk leen ci monde bi yéen. monde bi yow ay ñu ngi ci ñu ngi ci beneen univers ñu ngi ci yeneen galaxie gars yi ndox mi dañ koy renouveler ndox ndox ndoxu póotit ñu renouveler ko ndoxu douce ñu renouveler ko ay ndoxu foos ñu renouveler ko ndoxu taw ñu renouveler ko ndoxu géej ñu ren mais gars yi ñu ngi ci léegi eau renouvelable comme ni ñu énergie renouvelable yéen ngeen yéen yéen <laughs> yéen ngeen am problème mu naan ndox ngeen ngeen ñëw na fekk mo waa moñ waa mondial di waxtaan ngeen dugg ci yéen yéen a yebaate non mais yéen a yebaate cin li gars yi xorom lañuy wax cin li gars yi dañuy cin li mi bax baxi gaa yi di wax ni ñu dajal ni ñu ci defee xorom yéen ngeen di pepp suuf ndab boo leen dugg yàq ko ak pepp suuf ngeen lu togg neex neex boo leen ci tàbbee yàq ci togg ba yéen lu leen dugal ci forum mondial lu ci seen yoon lu ci seen gat gat sax lu lu leen ci yéen yéen lu leen ci quoi yéen <laughs> man dama man dama tiit add mondial gars yi nag ci indi ñi nga xam ne ñoom ñi ngi wax ay transformation renou euh, le euh, renouvellement de l'eau de l'eau renouvelable recyclé ñu ngi ci beneen monde yéen ngeen ñëw fekk adduna bi ñu nekk ci niveau boobu yab yabaate ba bëgg dee xamulen sen xatu xetu ak sen odoru silip ngeen dajalo nan ay forum mondial yéen lu len dugal ci monde bi lan mo len dugal ci la bu ngeen wax ma lan mo len dugal ci monde bi ba ngeen di ba ngeen ba ngeen am móor bu ngeen wara wax ci ci forum mondial de l'eau yéen yéen nok amul yen nok da len wër ñak da ngeen yéen di ngeen seen adduna da ngeen di wër ndox seen àdduna yëpp yéen a ngi yor ay ay ay butéel di wër ndox même ndoxu cinq litres sax mënu leen ko am eau potable jafe na fa ndox maa ngi yàq bëñi bëñ yi Kaolack ndox maa yàq suñu bëñ Jurbel ndox maa yàq seen bëñ yi Touba ndox maa ñuulal seen bëñ yi yëpp senegal ngi ay ndox buy yàq bëñ bëñ bu weex ndox jaar fa yàq ko vraiment waroon ngeen wax beneen vraiment forum mondial du calcaire wala forum mondial sel iodé wala ser forum mondial inondation wala forum mondial de la merde sincèrement man foofu laa leen doon xaaree ko waaye nag man awma seen jot comme yéen neen yéen da ngeen boole ngeen yab yab ngeen monde bi ba boole seen bopp ci monde bi ba monde bi nekk ci niveau niveau renouveler ndox mi yéen amul loo leen mën a renouveler dara mënu leen ko renouveler même ay déchets mun leen ko renouveler même déchet mun leen ko renouveler même ay déchets mun leen ko recycler yéen yéen lu ngeen ci lan ngeen ci monde bi di dajaloo di wax nan la ñuy la gratuité de l'eau l'approvisionnement en eau potable par tout le monde yéen ngeen ngeen di dox ci ndox ndox wër leen ndox mi di wàcc seen kaw te ngeen ñàkk loo leen naan ñew naan da ngeen di forcer sen bop te ay <laughs> da ngeen am xaj bo leen di yàq rek yéen <laughs> monde bi di la gestion de l'eau hmm nek ci <laughs> non Sénégal man Sénégal moom Sénégal mo mo dakh ci monde mo dakh ci monde bi man len di sétane rek di ree d' accord kon tey da ngeen di da ngeen di kii nii ah da di bokk ci forum bi yéen a ngi ci forum bi ah ok xanaa si ay xanaa après ay solution dina génn man waxuma ay solution yi war a génn pour renouveler ndox de solution bu njëkk génn mooy nan ngeen def ba Sénégalais yi <laughs> mën a am ndox bu courant bi robinet bi bañ a coupéeti <laughs> loolu mooy forum bi yéen forum bi toog leen rek ngeen waxtaan ndoxu inondation bi nan la ñuy def pour mu raw pour mu dem yoonam ñun même bu leen naanul garaaw yéen lijjantagu leen leen lijjantagu leen. lan ngeen di def ba inondation bi juillet bii di ñëw ak août bi doo leen jooy doo leen doon ay impacté di jooy ndax ndox mu nangu seen kër yi parce que da ngeen di bëri ndox bëri ndox bëri ndox bëri ndox ba mais amuleen loo leen naan bëri ndox ba ba ndox wër leen ba ngeen lap ci ndox mais amul amuleen loo leen naan nañ leen ñaan ngir yàlla seen jotaay yi ngeen toog noonu ak seen tambaambaalu gi ngeen nekkee ndax ñàkkub liggéey ak somage bu extrême hmm? ngeen xool solution yi ngeen fa am pour taw bi bañ a nangu kër yi pour ngir yàlla ngeen dimbale ñu ba nga xam ni <laughs> inondation yi gaal yi gën a bëri loolu ngeen war a lijjanti parce que vraiment fii ak juillet ay quatre gaal ñooy nekk di rawale gaay yi ngeen ñu xool ngeen ngeen xool ñaata gaal lañ mun a tëgglu pour fii ak juillet incha allah ñu mën a joow ci gaal yi pour mun a génn pour suñu jigéen ñi mën a dem ndugg ji marché ngeen ngeen yokk birig yi nga xam ni tamit bu taw bi ñëwee gars yi ku ne dina mun a jël ay birig teg ko ci kaw lalam mu mun a tooj ko ba ci kaw ndox mi di ndox mi bañ a nangu lal yi yooyu forum mondial de l'eau moom fexe leen ba boo leen fa génnee na fexe ba indi ay solution yoo xam ni inondation yii rek yii nii ndaw yii rek dinañ ci mun a génn donc loolu solution moom mooy ngeen yokk briques yi ngeen yokk briques yi ma nga xam ne ñi comme munu leen dara ci inondation ngeen yokk briques yi nga xam ni bu inondé nit yi dinañ tooj seen lal yi dugal ci ay briques ba mu kawee ñu mel ni ay càkkaaba tëdd ci kaw ak ngeen yettalu gaal yi mu gën a bëri comme ça ñu mun cee joow pour mun a génn vraiment mun a doxi sañ soxla loolu yaakaar naa ni dingeen ci génne solution mais moom mais moom monde bi moom bokk leen ci ba ji bay waxtaane ay suuf forum mondial ak ngeen yokk tam suuf si suuf si ngeen sëq suuf sëq sëq ngeen sëq ko ñi tamit <laughs> kay yabaate nañ nag yow man Sénégal ay kaañ lañ vrai kaañ lañ <laughs> waaw yokk moustiquaire yi yokk moustiquaire yi tamit ak garabu yooyu yooyu mooy solution yi so forum mondial de l'eau moom yéen toog leen foofu rek ak pompe yi ngeen wut maximum de pompe maximum de briques pour tóoj lal yi pompe yi pour ngacc foos yi gaa ak gaa yi foos yi di di di walwalaan tu vois euh, moustiquaires yi garabu yooyu xam ak posonu mbott yi parce que mbott yi tamit dañuy ngoox yi ngoox rek xam nga japp waxtan len dal waxtan len dal gis na len ci sen forum ko ñi sol kos ñi karawat ñi tok ñi <laughs> ñi def conférence ñi forum ñi def ay marche <laughs> ñun mondo ñu sonal mondo mondo sonal nañu fuñ déggé mondo wa mondo ba di def seni monde rek ñu dugg ci ñun dal man man yaakar ñun man xawma lan lañ ko dégg nañ forum mondial rek doloo rek ñu daw bo bo <laughs> bokk d'accord mi nga xam ne dëkk boo xam ne approvisionnement en eau sax eau potable sa waay sur quatre kër <laughs> trois yëpp naanuñu ndox mu baax <laughs> Kaolack seen bëñ yàqu na Jurbel seen bëñ yàqu na hmm? Tuubaa seen bëñ yàqu na hmm? euh, euh, waa Parcelles Assainies seen mbagg yee wàcc na hmm? waa yoof seen mbagg yee wàcc koo ci gis ma nga yanu butéel ay butéel comme ñuy xeexi koo ci gis mi ngeeg ñaar ñetti butéel koo gis ñëpp la seen mbagg yi wàcc senegal seen mbagg mbagg fii lay ne Sénégal ñëpp seen mbagg yaa ngi fii ñii nii lañ def seen mbagg yi lan moo ko wàcce ay butéelu ndox ñëpp a ngay root ndeysaan ñëpp a ngay root yo yo yo nañ man réew moomu kaañ lañ parce xaw ma man ñi awma si fitu sax di leen wax naan euh, ndox mi déjà xam nga lan moo gën a grave mais Sénégal ñi ki yar ndox mi ñi yar ndox mi <laughs> français yi la seen eau français yi ñoo ko moom <laughs> réew moo xam ni robinet ndox mu may kii dañ ko privatiser ndox may rotteeku ci sotteeku ci robinet dañ ko privatiser <laughs> seen eau moo ko France France ndox mi nga xam ni xoola gratuité lañu war a wax de France moom moo ko moom moom di ko privatisé facture ndox kër goo dugg ku mus nañ la couper facture ndox buddi sa compteur yóbbu ngay wëri ngay wëri noo def ba génn ndox <laughs> waaye réew réew moom yàlla nañ ci yàlla musal hmm? yaa ngay cher secteur ba ñu privatisé ko France ñëw nangu ko téye ci loxoom sa ndox sax moom France moo ko moom lac de guerre français yaa fale bu ñu bëggoon posone sénégalais fa la ñuy jóor posonu janax rek lañ fay tëmbal benn benn benn capsule posonu janax tapat sénégal yépp seen biir yi di daw wur wur ñu dugg duus di génn billaahi bu la tubaab tubaab bi moo tax gars yi dañ leen yeb rek mais tubaab bu ñu bëggoon rey rey nañ ñu bu yàgg rey nañ ñu bu yàgg lan mu ndox source vitable la kenn mënu ci mucc c'est indispensable ndox dama ne tubaab bi buñ ñu bëggoon rey dañu amul suñ jot parce que ñoom ñu ngi jël li leen intéressé te kenn yàqalu leen ko mais buñ ñu bëggoon rey dañuy jël seen benn poson rek poson poson poson boo xam jaru sax ñu ñuy rey suñu biir yi di daw dëkkee daw rek dañuy jël benn benn capsule kese dem ba ci lac de guerre lépp di génnee ko tëmbax sànni kër Momar Sarr xaw ma kër lan rek toog billaahi wallahi kër di nga gis gaay rang doom papa yaay ku ne naan waay gaawal génn waay gaawal génn waay <laughs> ndeysaan waaye yow léegi réew moom nan la mën a doxee ci waxu ndox ay forum mondial de de l'eau ñooñ ñooñ mais mais ñooñ moomuñu ndox ñooñ ñooñ amuñu sax ndox sax ndox ma sax tubaab yee ko mais c'est vrai bàyyi ma dem waaye sama gars yi man foofu moom <laughs> na moom <laughs> réew moo xam ne du assainissement nappe phréatique ba c'est à deux yàlla di leen tawal géej lépp a leen wër lépp lu leen wër ndox la ñuy dox ci ndox laf ci ndox ndox war leen ñu am problème lu ñu naan ñu jël ndox ndox ma lañ lu desee ci askan ñu war ko naan xoolal ñu jox ko tubaab ba bu leen bëggoon intoxiqué ex intoxiqué na leen bu yàgg yàgg yàqu nañ bu yàgg. léegi nag réew moom boom mooy pauvreté moom dafa graaw après nag pauvreté moom voilà day indi ay crise sociale quoi. day feñal ay vis après comme ni nga ko waxee am ay ay jo faal Tange tanja gis ngeen Tange tanja lu mu def <laughs> c'est que xam nga internet bi internet bi dafa yeb dafa lu nak dafa lu sénégalais gis ngeen dof bu nek day genn ci internet ko bu nek ignorant bu ne day genn ci internet bi di wax c'est-à-dire ñun internet bi moñu Je suis dévaloriser c'est grâce à l'internet ba kula la warta yab yab la accès ci waxam légui da ngay am accès parce que da lay agresser par force parce que bu ñu ba je sais pas man de sincèrement 10 euh, ans derrière ou 15 ans derrière man musuma xam ci aduna am na ko tudd Tange mu musuma ko xam ci aduna tour bi rek musuma deg ça dit je vivais bien quoi Tanzania nekk hors d'état de nuire xaw mais tey jii mais dama kay xam force ndax dañ ma ci agresser par force aw ma fu may jaar dagg ab vidéo nee dañuy dox information quoi waaye <laughs> sa waay nañ dama waay waaye man sama gémmiñ gi nag lott naa ci wax yenn affaire yi quoi <laughs> te mu wóor que ni même moom seen waa kër mënu leen convaincre c'est que réew mi moo neex réew mi ngay gis koo xam ne seen biir kër mënu fa convaincre benn picc picc bu gën a ndaw mënu ko convaincre seen kër amu fa sax crédibilité pour wax wallahi la azim genre xeet googu ñooy génn ne ñoom dañuy jéem a convaincre ab <laughs> ab askan yow mënoo convaincre sa baay munoo convaincre sa yaay munoo convaincre say frère munoo convaincre say sœur munoo convaincre say tante munoo convaincre say bàjjan munoo convaincre say koñ sa waa koñ munoo convaincre say dëkkandoo après ñëw génn lépp dugg ci internet bi ne ñun ngay convaincre ci comment <laughs> nga ñu jàppee réellement est-ce que yaakaaroon ne ñun yow ñu ñu la yëpp mënul mënoo cee convaincre kenn kenn kenn mënoo indi kenn ci sa askan ne ki yaa ko après nga nga ne ñun ngay convaincre non non et waxuma la melentaan sax mënuñu ko convaincre billaay wallaay ab melentaan wu ma yoo sax mënuñu ko convaincre même yoo mënuñu ko convaincre sax mënuñu ko convaincre seen koñ billaay sànq sax mënuñu ko convaincre mais ñooñu ñooy génn dañuy agressé quoi ñoo jàppewuñ ñu dara jàppewuñ ñu dara moom pour moom def na lu extraordinaire mais mais man musuma gis bassesse bu day noonu quoi fekk nit buy wax.

nattu bu la ko yàlla tegee xamal nga lan moo lay mun a muccal ci nattu bi mooy nga nangu nattu bi ñu dañoo nangu ni am nañ nattu dañoo nangu ni yàlla teg nañu nattu bu doy waar nag mooy Macky Sall te képp ku ñu bugg a toroxal nga en ñu ñun peuple bi da ànd ak Macky Sall di ñu dóor te duñ ci mën dara. nga war sañu kaw di cëppi cëppi duñ ci mun dara nga day suñu digg bopp yi duñ ci mun dara nga saw ñu duñ ci mun dara mu ngi koy loo def ñuy fomp rek di fomp rek di gëm ne ah <laughs> xëy na xëy na balaa xëy na balaa ngaa dee xanaa di dinañ mën a ñëw fu nekk nii chaque jour kenn ci ñoom saw kenn ki ñëw day ñu kenn ki ñëw doxal ñu bu Aïssatou Diop Fall sawee tey suba temps ñëw day ñu ginnaaw suba Fuuta Tampi doxat ñu ginnaawaati suba euh, lu mu tëdd di maire boobu noonu. xaw ma lan gas euh, euh, Macky Koura Macky ñëw raatale ñu day yi cest à <laughs> ñun daal ñu ngi nii rek ñun daal ñu ngi nii rek ñun ñooy ñun ñooy ku ma amul nday ci dëkk bi ñun ñooy ku ma amul nday <laughs> mais nag nañ muñ rek nañ muñ rek ah xëy na yàlla dimbale ñu ci fii ñaari at jamono ji moom mënuñu ci dara saa yi ñu yeewoo dina am kenn ku génn ci ñoom ku ñu fekk ñu toog dañuy yeewu gis Koura Macky ñëw day ñu Fatoumata Ndiaye doxat ñu Tange ñëw saw ñu Aïssatou Diop Fall ñëw diwuñu ko di ñu reetaan mais nañ muñ rek nañ muñ <laughs> ànd ak ñoo ànd ak pouvoir bi ñoo ànd ak pouvoir ci dara munuñu ci dara munuñu ci dara waaye rek ah, man maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu gudd fan maa ngi leen di ñaanal ñu gudd vraiment bugg naa ñu fekke ñu fekke leneen lu lii bugg naa ñu ñaanal naa leen ko ñu fekke waaw El Hadj Diouf ak maître El Hadj Diouf ma jàmbal Dieng xam nga kii kii dañuy saw kii puub ñu kii doxat ñu kii raatale ñu ko met El Hadj Diouf ñëw saaga ñu ndey euh, Dame Dieng ñëw mbëlee ñu temps cest à kii ñëw mbéj daw xam nga nan la mel dafa mel ni papa bu jur ñaari doom papa bu jur ñaari doom am ben dom bo xamne togn kat la quoi kat la mais dafa and ak papa ji lu papa ji wax <laughs> c'est bon lu papa ji wax c'est bon papa ji dem ba and ak mom tam mom dom lu mu wax papa ji nangu legui yow nga nek ci kër gi di wax deug mais boy bi dem ba xamni papa ji la andal, papa ji tam mom la andal boy bi dalay yotal nga tok defoko dara yotal xol ba sa lakh bi fu mu ne mu lu wet daw daw ngay daqe papa jë boo koy laal dee boo koy laal dee nga nii nga nii sa lex maa ngi xaar ba laal boo koy laal dee papa ji jóg boo koy laal dee ngeen eh, eh, papa daf may dóor daf may dóor nga naan nii ndeysaan dem toogiwaat ñun loolu la ñuy dund jamono yi toogiwaat nii quoi di mer nga gis booy bi yootaat yootaat fekk la ba kii rek koŋ la rang nga wisa, wuy sa ay yaa tey ma taw taw papa jël boo koy laal de boo boo ko laalee ma lekk la bi boo koy nga ne ne sa bopp bi ndeysaan ay kii de tutu mu toj sama bopp bi toogaat ñun ñun de mënu ji loolu la ñuy dund ne ah d'accord am problème jamono ji loolu la ñuy <laughs> ni ñi ànd ak Macky Sall nii la def di ba lu ku ci yor nga loolu si réew laa réew mun na am na démocratie ay ay doomu aadama yi génne man yor naa fetal te ba léegi police woowu leen enquête dama nga ne am na na kenn ku bokk ci ci Ousmane Sonko rek génn ba ne yor na yor na yor na bant yor na bant bale billaahi boo ko defee suba dig jël si la na kenn génn rek na xool faalewu ma leen maa ngi nii ak bant bale laa yor maa ngi bant bale mi ngi sama saak bi bant bale suba dig jël si la fajar teel suba dig jël si la bant bala laa lox ñoom dañuy yeewu naan xoolal man maa ngi fetal te am naa ñetti garde corps ñu ne ñan la ñu ne bip brigade d'intervention polyvalente nga dé ah, lu day d'intervention polyvalente mu ñett ma ciy te am naa fetal tamit Koura Macky nee na moom am na fetal te ba léegi dig jël siwu ko bu ma newoon Sénégal ne am naa bant bale dig jël si ma yor naa bant bale maa ngi xaar ba kenn attaque ma maa ngi bant bale dig dinañ ma jël si billaay wallaay moom mu taxaw ne moom xol moom yor na fetal te ba léegi <laughs> nee na Antoine John sax nag nee na ko bul génn fetal bi <laughs> bu ko génne de bu ko génne <laughs> ah, nee na Antoine John ñu ne kuy Antoine John ñu ne mooy ministre de l'intérieur ki war a joxe permis permis fetal ñu ne ñu ne loolu doyul de ñu ne. tam tampi genn ab jigen ni rek ha ah. ne mom man yor fetal ni carrément yorna fetal ba paré nak Antoine joxna ma ay garde corps ñu ne ko ñan la mu ne wa bip <laughs> ay way te xolal police jogut gendarmerie jogut xol gaay yi di gëna contane <laughs> lol moy lol gis nga lu wax bés boo ko waxoon yow dee Adji Sarr ñu moom ñett ñett ñoo koy garde waxuma la benn de ñetti doomu sénégalais ñoo yeewu war a dem liggéeyal askan war a dem liggéeyal senegal la sécurité pour sénégalais yëpp ñett ñu jóg di dem di garde kenn koo xam ne kenn mënu ko sax teg bët ñett ñoo xam ne ñu ngi leen di fay salaire ñoo xam ni tey seen liggéey bu ñuy prêter serment bu ñuy waat waatuñu woon pour dem garde ji benn benn jigéen <laughs> ñett man waxuma ne benn kese mais xanaa benn kese benn kese bu ko garder sax koo xam ne duñ ko sax gis benn kese mais ñett ñett brigade d'intervention polyvalente yi yow ñett ponkal yu ñu entraîné di jox sañ salaire ñuy ñu to ñuy garder benn jigéen benn benn jigéen nii rek ah <laughs> ñu ne déetawaay Fatoumata Ndiaye futa tambe ne mom tam yor na ci yónnee nañ ko te mom tam nañ koy garder ñu ne way mu ne mom yor na fetal ñu ne way ku Macky ne man yor naa fetal te xool billahi bo gennon senegal ne yor nga fetal ti media tay tay tay dig jël si la do fanan sen keur tay chasse à l'homme <laughs> ne diga genn fetal bi de <laughs> wala nga genné permis bi <laughs> voilà lolo senegal quoi lolo moy senegal motaxit ñun nañ xam sañu bop comme ñun faruñu ci nguur suñu suñu baye du nguur nekkul ci nguur du bur ah nañ xam suñu bop fi nekk ni mënuñu ci dara dama ne sédé yalla bo fi néwon am nga lasper lasper rek boko néwon yaay ngi yor ma ngi lasper mi ngi ni sama sak lasper boo ko waxoon tay tay tay dig jël ci la wallahi bo néwon gwe dem ci journaliste nak mi ngi ni lasper am lasper dig jëlay jël si c'est <laughs> non réew moomu nag dafa doy waar ndeysaan réew moomu dafa kéemtaane ak kéemtaane te réew moomu euh, kenn mënu ci wax daal man gisuma benn na ma kenn wax benn secteur buy dox Sénégal benn ban secteur mooy dox Sénégal ban secteur boo xam ni ña nekk ña ngi cay yëg seen bopp ban secteur ngeen gis bu amul grève amul marche bu amul riir ban secteur ban ban secteur amna na ne am buy dox amna buy dox secteur buy dox bo xamni do fa dégg grève do fa dégg joy do fa dégg yuuxu sinon ban secteur ngeen gis merci beaucoup secteur de la politique ñi and ak Macky Sall secteur bobu duñu joy jooy duñ joytu lepp la ñor merci beaucoup secteur bobu la APR APR ña ña ñu ñu ñu sëq ña ña tiim ba di sëq di mëkk ta luñu wax wax ji da leen di sonal ñu ne au pouvoir wër bool bu ngand bi di di ñaak di duggal di ñaak di dugal ci gemi di dugal ci poste di dugal ci yéré fu ne ñu dugal ñooñu moom cocc bu wéso loolu amul benen secteur bo xamni ni mi ngi dox Sénégal amul secteur APR kese kese moy dox Sénégal kuy lekk du wax ku sa gemiñ fess du wax mais ñooñu dañuy lekk lekk lekk dugal seen yére yi sol sol seen poos yi lok dugal seen mbaxana yi partout <laughs> buñ génnee di bugg a waxal pauvre yi di bugg a waxal chômeur yi man maa ngi dégg waa ji càmm mu ne Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent <laughs> mu ne Sénégal population quatre-vingt-quinze pour cent yëpp <laughs> am nañ accès à l'eau approvisionnement en eau mi ngi dox naay quatre vingt quinze pour cent yëpp <laughs> mu ne waaye c'est bien nag mais c'est normal boo boo wëree am ndab di sëq di mëq di dugal fu ne di sol fu ne sincèrement boo boo ñëwee di waxal pauvre yi nag li li nga dund rek ngay wax c'est normal ah yëguñu lu ñu xew en fait dañoo yëgul lu xew mais mënoo jël tey ñi wax l'eau forum mondial de l'eau ñu war a invité ñi ñàkk ndox waa parcel aseni waa Yëmbal waa Kër Masaar waa Route bun Boune waa Grand Yoff ñi nga xam amuñu ndox lu ñu naan waxuma laa sangu ñoo ñoo war a yor micro déedéet ab ministre la la la won mu sol kos karawa door, ay pins xolal taxaw ñu indi table bi fa dal ak ay ñoo xamni xolal duñ sax naan di sax nan ndoxu ndoxu sénégal <laughs> xala ñooy toog yor micro bi mais ñooñu ñooñu bu ñu waxee sincèrement ñu war ko mun a nangu nag bu ñu waxee ñu mun ko nangu parce que la ñuy wax leer na la ñuy wax ñoom moom lañ dund ñoom li ñuy dund la ñuy wax <laughs> mais boo indoon ñi tey waa cité faja li ñuy teg nga jox leen micro yi ben ministre bañ wax kon du so koy dama ragal gars bala ñu faa génn gars yi leen <laughs> gatché koo xamné la ñu cee jëlé dama ragal ba ñu faa genn ministre ñoo ñëk genn ñu né niñ bayilé leen ministre yi jiitu ministre yi rek tëmbal leen leen bomb tëmbal leen mari bomb bu fi kenn rëcc bu fi kenn rëcc <laughs> mais nak ñañ fay teg ñuy wax ñom vraiment <laughs> ñoñu ay bëñ yu tal lañ yor yor yoruñu bëñu yor ñu bëñu Touba yor yoruñu bëñu Gossas yoruñu bëñu <laughs> ñak ñu ndox ay Evian eh, la ñuy naan eau oh, oh, minéral bi la ñuy naan ñëw toog toog kuul ab ñoom la sol seen kos karawaat sangu ba set ak eau minéral bi xam nga yenn ci piscine yi bu ñëwee toog yor micro bi ne ñoom ñooy waxal askan wi moo tax koo ci jox micro mu ne waa quatre-vingt-quinze pour cent sénégalais yëpp ñu ngi naan ndox mu baax ndox bu eau potable eau minérale eau bi xam nga vraiment vraiment euh, euh, ravitaillement bi mi ngi dox approvisionnement approvisionnement bi en no vraiment eau potable <laughs> réew mi réew mi réew dafa neex nag réew mi dafa neex réew mi dafa neex réew mi dafa neex mais bon voilà quoi xam nga. nit gang lu mu bon bon bon bon bon lu mu bon bon bon bon bon dina am ay nit yoo xam ni am nañ benn yërmande ci askan c'est ça dañu problème ak ay chiffres en fait ils on problème avec les chiffres en fait ak ak les pourcentages dañu problème wu chiffre ak pourcentage quoi waaw ñoom manam buñ démé ba ci wara wax ay chiffres euh, alzheimer quoi Il commencé di perdre l'esprit. xam nga voilà quoi mais nak destin bi un moment destin la quoi destin comme nous l'avons challenge nous ñu fi député yi Sénégal député assassin député jaaykatu drogue député falsificateur de billets député trafiquant de semences député Tede jabaru jambour député Saga ay député torrent ay député Tagate ben ministre est wax ministre saaga na ministre bi sa morom ay donc am a xeetu député député ku wax la c'est-à-dire am ngeen xeetu député bu dul député bu torox bon ci àdduna bu yàlla toroxal ko ba mu ne tott nag tant que yàlla mi ngi toroxal yenn doomu aadama yi ngeen di valoriser doomu aadama yooyu doo leen jóg tànge déggu leen ma nag bu baax ma ma wax leen dama ne moytu leen ku yàlla di toroxal seen njiit yàlla ni leen di toroxalee ngeen leen yàlla du munul toroxal doomu aadama yi ngeen bugg a jël doomu aadama ba bu ko valoriser lu yàlla toroxal da ngeen ciy mucc da ngeen ciy muslu pour mun ci mucc yàlla munul jël ab doomu aadama jàpp ko toroxal ko ba mun a tot ngeen bu ko jigal valoriser ko xool leen seen député yi Sénégal am na assemblée nationale ay député yëpp xeexkat lañ ku la dàq saaga ndey ngeen ne kii la mooy argument bi argument bu gën a valable seen assemblée nationale saaga ndey la moo tax député yi dañuy dem jàngi maa tëb lëmbal tëbati lëmbal balaa ñu laa jël boo nekkee ci benn liste list député liste élection législative loolu ngay dem ci école yi fekk benn booy ci koy ay booy kaay kaay ñu saagante parce que <laughs> maa ngi ci liste bi maa ngi ci liste <laughs> maa ngi ci liste APR benn bokk yaakaar <laughs> maa ngi ci liste sama turam fa kaay ma kaay ñu ñu saag ma ma mun a dellu parce que maa ngi commencé fàtte saag acca nañ acca nañ commencé un maa deux maa tëb lëmbal tëbati lëmbal bi bu ndaw loolu dañuy jànganti saaga nday la ñuy jàng ji parce que dañuy assemblée nationale saaga nday kese la du dara kii dañ ko war a nokk dañ toog toog kii ko war a eh, kii dañ ko donc saaga ndey bu ñu la ne boo nekkee ci liste rek demal jàngi saaga ndey loolu loolu mooy argument bi saaga ndey yuuxu ci kaani ñu <laughs> jeex na boo nekkee ci liste rek loolu ngay dem njëkk a jàngi ci saaga ndey boo demee ba mokkal saaga ndey nag parce que saaga ndey da ngay dem ba fàtte am na saaga ndey yu garaaw vulgarité dem ba jàng ay ci saaga ndey boo booy nekk ci mbedd yi dañ lay former direct ci liste bi ngay nekk rek balaa élection yi. nga dem jàng ji saaga ndey xamaat code yëpp code saaga ndey yu mujj xam nga yoo nga xam ni boo ko saaga saaga nday deux mille vingt deux yi saaga ndey deux mille vingt trois yi war a ñëw tout nga dem jàng ba ne ar taxaw waaw xam yëpp nga xam ni bii bu ma ko daggalee waa ji rek c'est sûr day day day faatu waa ñëw indi listam indi ay document am dem gëstu ji ñëw marathon budgétaire di expliquer approvisionnement de loo xam nga gars yi ngi ci ay eau renouvelable kan aywa fecc merde waay ay dañuy toj ay kii dañ ko war a noq waay ay kër dañ ko président bi nekk écoutez écoutez écoutez pardon waaye toj toj toj waay da merde ay kii dafa yi nga xam ne xoolal booy nga nga ko doon gëj dégg ci jamonoy xale ay koo ci gis mi boobu ñetti abdu aj aj bi yëpp nag pour xeexe ji la di di di di jóg fu ci hémicycle ku ne nag tey rek ma toj tey rek xoolal <laughs> doo yëggali sa doo yëggali silence silence s'il vous plaît silence comme ay xale comme école primaire assemblée na seen assemblée nationale comme école primaire école primaire moo am loolu fu professeur bi toogee naan wala maître bi toogee naan taisez-vous Taisez-vous. Eh, Momodou, tu t'es pas là. Eh, Tais-toi là. Eh, mais, Franco sur la table. Eh, écris-moi le nom des bavards. le primaire là, avant. Assemblée nationale, Assemblée nationale. Le nom des bavards, rien que vous C'est l'Assemblée nationale. Wallahi, lañ fay fait xolal gars yar feuille. Président Assemblée nationale, Moussa Bagnas joxe le venez ma le nom des bavards. Non ay saga comme préscolaire. Quin quin Taisez-vous Mais silence Mais s'il vous plaît Taisez-vous comme comme préscolaire Nous <laughs> leen Nous sommes tous les dirigeants. dirigeant quoi nous, leen nous, fal quoi sont nous, nous, nous, fal ah. mandat <laughs> assemblée nationale kii naan danaa kii di saaga nday xoola danaa xar seen <laughs> waay waay moment bu gars yi di saagante moom moom Bougazelli mun a xaaral ma dem duble samay xaalis man <laughs> xaaral ma dem double Bougazelli dem ci biir noir yi moom commencé teg teg teg trente deux milliards na ah <laughs> da ko doomeram la gars yi bëgguñu dara ay député saagakatu ndey député tëddee jabar jàmbur député goraate jaasi député menacé waate non non des bavards taisez-vous député mafia passeport diplomatique buggaa jël ne ah comme dëkku doomeraam la te gars yi ñoom ay doomeraam rek lañ bëgg doomeraam yi la ñuy fal xaaral ma profité man dem samay billet noir dem <laughs> développé ko nu mu gën a gaawee <laughs> ay dëkk bi daa neex di ah réew mi yow lii lii lii du réew profité moom dóor 32 milliards 32 malheureusement dafa daanu ndeysaan waay waay yàqu naa waay ah yàqu naa waay <laughs> heureusement bon voilà donc bu de bu dee euh, continuité boobu ngeen bëgg ah fal leen leen rek continuité boobu mi ngi fi de ñoom ñu ngi fi de ñoom ñu ngi fi te ñoom bàyyiwuñ de ñoom neneen dañuy dem ci élection yi donc ñoom ñu ngi fi bu dee continuité boobu ngeen bëgg ay député falsificateur phobie ay députés euh, mafia trafic de passeport diplomatique ay député sàcckatu semence ay député saga députés ay député xeexkat xam nga ay député les waate ay président assemblée taisez-vous ay député gorkatu Jasi. ay bon ay je m'en fous man lu sais pas bëgg bëgg vous bu vous ngeen bëgg continuité mais fal l'en on s'en fout hein, <laughs> nous on est là hein quoi qu'on puisse dire, on n'est pas dirigé par ces députés. Moi, je ne suis pas dirigé par ces députés. Hein. Moi, en ce qui me concerne, en chair et en os, je ne suis pas euh, dirigé par ces députés. Non. Man, qui législation où Canada laay Donc, législation qui hein. législation Canada laay doxee ay loi euh, canadienne

man ñima jité fi dañu xam ay responsa seen responsabilité dañu valoriser euh, l'Assemblée nationale ay saagakatu ndey new ñu fa ay koraatekatu jasi menace new fa ñu japp Canada euh, benn député bu doon falsifier 32 milliards de faux ñu japp Canada Ben député bu doon trafiquer passeport diplomatique ça n'existe pas xamuñu ko Oh, ñu leen ci jiite wuñ ma seen dara teguwul sama kaw seen dara du seen loi du seen dara doxuma ci seen tali lekkuma seen lekk naanuma seen ndox doxuma ci seen dara dara absolument rien mais <coughs> mais sama réew la quoi natt mo yàlla teg la sama réew la sama dëkk la fierté mais ni dëkk bi di fierté en tant que tel le fait que ma donne sénégalais am fierté énorme mais ni Sénégal de doxee ci benn fierté benn fierté fierté bu minimum Le peuple bu choix changement mais peuple on ne peut pas être plus loyaliste que le roi que le Sénégal peuple bi ci boppam beaucoup ñoo bëggul libéré wu ñoo bëggul ce changement là tant attendu ñoo beaucoup de continuité et boobu mais euh, on n'y peut rien mais si on appliquer le yulli wuli tulli on sera fier d'être sénégalais et de se retrouver dans dans dans ce Sénégal parce que on se retrouve pas hein. on est perdu man damay seetaan Sénégal mais chaque jour ay chaque jour man je comprends même pas quoi dama en fait dama comprendre sax situation bi des fois gars yi ne politiciens ñoo ko mais man je me dis que politiciens teguñu ko ñun ñoko ko teg suñu bopp. li Sénégalais dund Sénégalais ñoko tek sen bop bëss bés décider mu changer day changer bés bu décider mu changer day changer c'est à eux nak maintenant <laughs> ñu décider ñu appuyer sur leur sort ñu décider ay député lici yi dañ koy dañ koy c'est pas n'importe qui mais assemblée nationale ils mettent du n'importe quoi des voyous des bandits mais assemblée nationale amna sax ay député yo xamni mais japp ni mais Sénégal xam nga gars yi wax ay waxu viol mais Sénégal autorité yi ñu yàgg jàpp ci affaire viol dafa bari de. autorité laa la wax ah. ba nga xam ne dañoo def ba nga xam ni loolu dafa nekk seen mind ba nga xam ne luy yëngu luy yëngu ñu jàpp ni viol la parce que ñoom ci viol lañ yàgg dëkk ci viol lañ yàgg dëkk dañ ci yàgg nekk ba nga xam ni <laughs> mais lu yëngu ñu ne viol lu yëngu ñu ne viol mais c'est normal bërki dem dégg Yérim Seck viol jàmbal Diagne bii gaa yore nañ yore nañ silibam bi ah silib bu weex bi bu am kii bu rouge bi moom dina xam li ma jàmbal Madiambal Diagne Babacar Gaye yor nañ vidéo am bu muy wax bu muy wax caga bi naan ko di na ñeppal sama ndey bàll ma Babacar Babacar Gaye bu PDS conseiller Abdoulaye moo war a wax benn caga bu ko iri woon vidéo mu ne ko ñeppal sama ndey tega bi di ko laal mu naan ko ñeppal sama nday Babacar gay bi ngeen di gis muy rëy miñ bi ngeen di gis nii nekk ci internet bi billahi wallahi vidéo bi mi ngi fi vidéo bi mi ngi fi c'est ces gens là ñoo sol grand bubu ñëw toog ñi di xëccoo ay liste di di eh, mais c'est-à-dire <laughs> <laughs> même Macky Sall même Macky Sall même Macky Sall dafa rëcc mais Macky Sall gars yi te même jamonoy PDS si <laughs> jamonoy PDS gars yi tegaloon nañ Macky Macky Sall bu mu génnee PDS gars yi tegaloon nañ ko plan bu mel noonu mais mal heureusement pour lui dafa rëcc heureusement pour lui gars yi yow yor nañ bagage yi de yor nañ bagage yi billaahi wallaahi wa taalaahi booy dem euh, aéroport euh, Léopold Sédar Senghor amoon na benn am na benn xom xam am na léegi mais benn école euh, hôtesse de l'air benn hôtesse école hôtesse de l'air booy dem aéroport dama fàtte tour bi quoi aéroport comment dirais-je Léopold Sédar Senghor gars yi dañoo demoon gis hôtesse de l'air yooyu teg ak ñoom dil pour ñu jéem a lijjanti benn rendez-vous ak Macky Sall benn rendez ak Macky Sall hôtesse de l'air yi defaru ba tooy xap xap dem seeti da wut rendez-vous dem seeti Macky Sall di ko jéem a charmer te loolu waa Pérez ñoo ko monté woon di ko jéem a charmer façon charme bu ne def nañ ko ko fa mais xam ne ragal la nak xam nga mom du ci yenn vite fait ak mais <laughs> réussirul mais jëm nañ ko ci mais vidéo jambal mi même éjaculer ci ci pooju xale bi da ko don forcer El Hadj Diouf <laughs> mi ngi fi da ko don violer mineur bi di reyanteeg mom vite fait daanu daanu bu gaw comme comme comme num ginar comme ginar bu yéeg wacc ci saase pooju xalé bi yëpp la la yak lepp mballu ci ci ci pooju xale bi El Hadj Diouf bi Billahi Wallahi wa taalaahi nous ñu après attouchement sexuel attouchement lañ ko dafa daanu sax de vite fait maître El la yaax Pour la mballu foofu yëpp photo photo yi mi ngi fa photo yi commandant bu mais eggul nag ci xale bi eggul ci xale bi mais daa daanu matu sax seconde la mu yàq pooju xale bi yëpp loolu moo tax affaire bi mujj ci attouchement ci viol de attouchement sexuel yooyu yëpp ñun yor nañ info yooyu ak leneen ak leneen ak leneen mais suñu live new ñu di di di def ay révélation man bëgguma ci live <laughs> ay révélation ay révélation xam lu gën a garaaw nag xam nga lu gën a garaaw mooy man ña may informé ña informé ci ñoom lañ bokk ña may informé ci ñoom lañ bokk <laughs> loolu moo tax <laughs> loolu am na yenn code yoo xam ne moom dëkk dëgg dëkk dëgg c'est des pervers am na yenn code yoo xam ne moo ko waxee rek dañuy nànd ñoom ñoom dañuy nànd quoi am na yenn code yoo xam bu mu ko waxee rek pour ñoom ñu topp filiale boobu pour dem jàpp waa ji war a mu nekk <laughs> yow yaay waxal waa day day facile moo tax chaque jour bu may wax dara sax dama koy codé dama koy codé du ma yegg au fin fond des choses mais man laa la wax de man ma am na ñu nekk ci ñoom xam ne wallaay la dañ may woo di moo moo la loo wax ci dëkk bi des na ñun de ñi ngi ci système bi xam nañ système bi te deug deug deug deug xam nañ ni ngi ci système bi mais système bi lo ci wax ne mafia la rek lu ko wessu wessu nako carrément yàlla seede na ni billaahi laay wàdde wallaahi wa taalaahi barki laa ilaha illa allah sur le saint coran démb kenn ci ñoom billaahi wallaahi wa taala woo na ma fii plus de deux heures de temps xam nga lan moo ñu séparé match euh, Marseille Lille foo na Marseille Lille xaw ma Nice xaw ma sax match woo moom ci la ma ne day seetaani ji match bi loolu moo yàq suñu waxtaan man ak moom autorité de la république ponkal bu bokk ci ñoom bu bokk ci ñoom Paris Marseille Nice ah Marseille Nice moom moom ma ko xamal sax moo ne ma booy booy fils maa ngi dem seetaani Marseille Nice nag quoi maa ngi dem Marseille mooy sama équipe damay dem seetaani xam nga paa yooyu damay dem seetaani Marseille Nice parce que ñoom Marseille lañ sax wax fu mu nekk nii parce que bu nee fii la nekk rek dañuy xam foofu dañuy xam foofu <laughs> <laughs> parce que jamono jii nii nii nekkul Sénégal jamono jii nii nii nekkul Sénégal. Hmm. parce que bu ma woowee dëgg-dëgg <laughs> nee na booy tax booy <laughs> mu ne ma sama sama sama whatsapp bu Sénégal bi quoi booy jox ma sa whatsapp bu kaaw bi jox ma sa whatsapp bu kaaw waaye non grand booy jox ma sa whatsapp bu kaaw bi fils waaye yow yow xamul xamul gars yi dañu la surveiller nga nekk fii man dinaa nekk fii di woo di woonte yow ci sa numéro numéro Sénégal whatsapp bi yow xanaa dangaa dof ma no non grand gars yi munuñ dara ci whatsapp mu ne ma da nga febar gaay <laughs> sa whatsapp lepp la ki nga nam yow sa numéro bi boy mu ne boy yow da nga dëgg fi de boy sa numéro bi mi ngi de mi partout sa numéro bi mi ngi fep ma dégg nga koy joxe damay ree ma ne boy bi xamul sax lu xew sa numéro ba ngi fep man dofuma jinne jappuma ba nga may jox di di la wo ci numéro Sénégal jox ma numéro kaa bi yónnee ma numéro kaa bi ma yone ko numéro sama numéro fi whatsapp bi. <laughs>

gaay niñ ni affaire ak auto yu miné auto yu bees tàq yu miné won drogue bi fu mu jaar <laughs> la ilaha illallah tout ba ndaysan yalla ko yalla yeureum papa wali sek buñ buñ gis nga gaay gaay dem japp papa wali sek gang bobu japp papa wali sek du c'est pas la police c'est la gendarmerie ño dem japp wa Bofa bayat même même gang bi même gang bi ño japp wa Bofa bayat même gang bi ñoo ñoom ñoo dem jàpp ji euh, booy jinne même gang bi brigade boobu même gang bi même chef boobu xoolal <laughs> affaire bi dafa garaaw de dafa Sénégal mooy dox mooy mooy mooy dëkk boo xam ne dëkk vrai mafia la yu yi di fa ne mais xamuñu ni dëkk vrai ay affaire yu ndaw mooy tàkk ay fettantaan mooy tàkk nii rek gars yi di yuuxu ay jàpp ay député qui trafiquer passeport diplomatique gars yi yuuxu fekk gars <laughs> réseau réseau mon nom boy réseau la réseau ay ñëw ay section de recherche mu même chose ñu japp ki ñoo japp section de recherche boobu ñoo jàpp papay walis Seck ñoom ñoo dem japp ji waa Bofaba ñom ñoo dem japp ji euh, lu mu <laughs> mais père père dafa graw boy boy ba xolal booy fils dama lay waxal xam naa dama je te fais confiance parce que Serigne Touba je te fais confiance quoi s'il te plaît noo même booy wax xamal nooy waxee parce que gars yi bandi lañ ma ne ko non man père xam naa gars yi nag yàlla dafa def ni man am naa nijaay jafe ne te xam naa ni moo kooku moo gën a sadik ci suñu famille nijaay jafe ne di doomu ndeyu Macky Sall kooku moo gën a sadik suñu famille c'est-à-dire mun na la téye teg paaka di la ren di di tux gara am sadik quoi ci sari ci sari gars yi dañuy dañuy sama famille sax ñoom dañ naan kooku bokk ci dañ naan tubaab la tubaab lañ koy woowee tubaab sa à dire niveau sadigam quoi niveau sadigam moo toll ci niveau boobu ba nga xam ne dañ naan kii tubaab la dañ ko génn sax ci famille bi ne moom tubaab la mun na la fekk ngay xool di dee ci sa médit nga xool nga war a dem jënd ji nga war a dem jënd benn ordonnance bu manqué fukki dërëm ngay nga war a dee dans dix minute du la ko jox. fukki dërëm du la ko jox pour nga pour nga mottali ko sa ordonnance pour wane niveau sadique bu ñu sadique ñooñu kooku mun na la rendi léegi yor cigarette am di tux yor malboroom di tux wala yor cigarette bu muy tux lu gauloise xaw ma seen cigarette yu gudd yooyu noonu yu gudd yi rek di xoolee daf nii di tux di sotti saxaar bi <laughs> moo tax grand bi na ma booy booy rakk <laughs> na rakk Euh, il faut ma lay teg ci code quoi parce que bu ma la tegul ci code da booy da nga sañ te da ngay wax te booy wax mu xam nga gars yi mun nañ di remonter ma ne ko waa ah, mais grand mu ne ma premier ministre bi premier ministre gis naa li ngeen di jooytu naa ay premier ministre mu ne ma booy premier ministre allah dans septembre septembre dafa ma doon wiiri wiiri sax <laughs> mais gars war na mu lu graté naa leen ko wax nag mu ne ma premier ministre Macky septembre côté septembre la wax info la nak de jël len de parce que kenn du len ko wax septembre te premier ministre bi bañ na ma wax tour bi nak mais nee na dox na ma ko nee premier ministre xam nga gaay yi dañ fi wax ben wax am gaay tel na paquet dañ ne Macky Sall ak no xar bu ma baña a ma développer carrément dank déglu len mu ne ma boy fils ma ne ko waaw mu ne ñaata at la Karim Wade tëdd ci kaso bi ma ne ko quatre ans ma ne ko quatre ans <laughs> mu ne ñaata yoon la ko baayam seeti ma ne Abdoulaye Wade muy wër wër wër ne ko benn yoon mu ne loolu jaaxalu la ma ne ko jaaxal na ma kay rek mu ree <laughs> booy booy xamu fu ngeen nekk yéen sa dom teud 4 ans sa bayam seti ko lu ben yon te c'est vrai ben yon loko ko Abdoulaye Wade mujj mus a seeti rëbës 4 ans ben yon loko musa seti a ma ak Abdoulaye wad nu mel ci domam ben yon loko musa seti lolou musu len jaxal yéen ma ne ko oh, grand loolu garaaw na de rek mu ree na <laughs> booy du ma la wax lepp du ma la wax lepp <laughs> du ma la wax lepp boy ma ko grand kon lolou motax gars yi naan mafia bi am na entre Ablaye Wade ak Macky Sall mu ne musuñu réeroo mu ne musuñu réeroo te premier ministre waxtaanee nañ ko ancien ministre la dama lay jox mu ne ma dama lay jox euh, dama lay jox indi indi indicatif mu ne ancien ministre la bu Abdoulaye Wade waa PDS ancien ministre Abdoulaye Wade ici d'ici septembre incha allah Macky dina ko fal. Mana ko ah mu boy lolou kay fof la yama yo yow bu bu ma la waxee tur rek dina am num demé rek ree na <laughs> mais boy do lañu jël présidence yi ma ne ko duñ jël président mu ne ma opposition du ko jël Mana ne ko lu opposition du ko jël ma ne grand père nak yaangi yaangi baye ko nak père mu ne ma booy yow dof Boy maki. gënal leen ko ci Bokul loolu maki da ko tek ci table bi bam leer maki du du poser candidature mune ne mom ngeen koy débattre sax ça montre que xamulen dara ci nu état bi di doxé loolu boy mola ma ko waw mune bëgguma nga bok ci débat yoy maki Sall ay dina poser candidat du poser candidature mais doo laal affaire bi doo ko laal mané ko duñ ko laal mané ko grand nak da doon nag commencé nak nak de mune ma fils laal. waxuma premier ministre nag waxuma déglu leen bu baax bu kenn jaxase samay wax waxuma ni premier ministre Abdoulaye Wade daf na ma ancien ministre Abdoulaye Wade mooy doon premier ministre d'ici septembre mu ne ma doon leen am premier ministre fii ak septembre di ngeen am premier ministre te kooku ancien ministre Abdoulaye Wade la ci parti Abdoulaye Wade la génne ancien ministre mu ma en septembre japp octobre président bi dina amnistie Karim wad mu ne ma bindal ma ne ko grand boy mba di ma enregistré ma ko non grand du ma la enregistré du bindal buñ premier ministre bi Macky Sall dina amnistie Karim wad ak Khalifa Sall mais après septembre inshallah allah di amnistie ñom ñaar ñep noté ko mais grand bi day dugal fii ba ngay bëgg ñëw mu réer xam nga rek ak calcul yi quoi ñu ma bindal dina am ne see ñoom ñaar ñëpp ma ne kon da nga bëgg a ni Karim wàdd moo nar a ñëwaat mu ne ma waxuma de waaye daal booy présidence bi Macky du dem te Macky nee na moom bakkanam la ci teg ne du jël mukk mukk pouvoir hein di def passation de service di ko jox Ousmane Sonko <laughs> nee na loolu moom Macky Sall nee na moom nee na bu bu ko naree def ñu gasal ko pax mu ne ko grand looy wax ni mu ma Macky Sall nee loolu moom jàpp ko mu ne ma jàpp ko parce que nee na opposition du jël pouvoir bi kon ñoom Karim Wade bu ñu la am na amnistie <laughs> dañuy ñëw ci ñoom ñu booloo moo tax ñuy naan ñi ngi annoncé wu mosuñu réeroo PS PDS ak PS ak euh, euh, APR. bu suñu réeroo ak benn bokk yaakaar ñu génnoon di ratata di a wax mais grand yi ci biir paa yi nekk ci biir ñooy expliqué mu ne ma booy ma ne ko waaw mu ne ma <laughs> Macky Sall nag booy xam nga pouvoir Macky Sall ne jël pouvoir bi nii palais di ko jox Ousmane Sonko mu téye ko ci loxoom nee na moom loolu tout sauf ça ma ne ko man a grand ma ne nag foofu ngeen ñàkkee nag ma ne ko grand yéen xam ngeen pouvoir peuple yéen mu ne ma booy ñun ci mani manipulation la ñuy dox nekkuñu pale ci ay caaxaan booy man manipulation laa jàng ba ne artoog fils del may déglu nag man ba ma nee Vanvo jógee Vanvo ñu jox ma bursu ma dem jànge ji ñu bokkoon ci booy Ablaye Wade yu doon taal town bi di expliquer ay affaires yoo xam ne comprendre ma sax bu ñuy taal town bi Vanvo génn fa jànge ji kaaw booy gouvernement moo ñu jox loolu laa jàng ji manipulation la nga may wax ay waxu peuple yo xam nga yow mën nga ma jangal peuple man ah grand peuple bi dañ leen bett de grand bëss bo leen ne da ngeen di jël pouvoir bi ni ba rocc ko ngeen ne do leen ko tek ci loxo sonko da ngeen di amnistie Karim Wade après indi to tungoom wax ak mom tek dil jox ko pouvoir ba fexé no leen dafa jox ko pouvoir bi pour mëna a ndank assurer sen sàcc ngeen sàcc ak yoy mëna oh boy jappal li ma la wax te nga garde nga téye ko pour l' foofu wax naa la premier ministre bi wax naa la ma ne ko mais grand mais ñaata nit ñoo dee ñaata nit ñoo dee ci bii passé mu ne ma ma ne ko mu ne ma ñaata <laughs> bandi lañ nag mu ne ma ñaata booy mu ne ko 14. mu ne ma booy lu ma gën a neex ci da ngeen di toog naan ay Macky Sall moo rey mais booy 14 deewul ma ne ko ah grand lu tax 14 deewul mu ne ma non 9 moo dee 9 la ñu rey 9 la ñu rey. mu ne ma cinq yëpp cinq yëpp dañoo dee ci ay Auchan man man loolu grand bi moo ma ko fàttali man fàtte naa loolu mu ne ma neuf la ñu rey ci bal quatorze yëpp deewuñu ci bal neuf la ñu rey ci bal mu ne ma cinq yëpp ñuy ay Auchan ay accident lañ dee accident <laughs> gaa gaa yi nekk ci biir pale bi dañ garaaw de nu bandi grand bi moom bandi boo xam ne pa père père maanaam grand bandi bu ko nëbbul la mu ne moom bandi la bu ko nëbbut il est là pour ça pour les pour sale boulot manipulation nee na ñoom lool loolu lañ fa toogee mu ne ma booy neuf ñoo lañ dóor balu fetal neuf mu ne ma ana ñooñu ñu lañ dóor balu fa ana ñu mu ne ko waaye gars ñu ngi ci police bi mu ne ma <laughs> mu ne ma déedéet mu ne ma neuf yi dóor ñu leen bal mu ne ma ñooñu nekkuñu fa mu ne ah, mën ne kii mi ngi Italie kenn ki mu ne mu ñu rey mu ne ñu rey ñooñu ñoo rey neuf yëpp mu ne ma cinq cinq cinq ñoo rey neuf yëpp cinq mu ne ma kenn ki mi ngi France kenn ki mi ngi itali wax dëkk yëpp mu wax ma ko mu ne kenn moo fa des kenn kenn ci ñu rey booy neuf yi mu ne ñeneen ñi ay accident la mu ne baa ngi dégg ngeen di ay quatorze la ñuy rey yi quatorze rey ñu quatorze neuf lañ dóor bal fetal seen yaram yi cinq yi ci des yëpp ci ay accident ay Auchan lañ ñu fekk ñu taal Auchan mu ma ne ko ah d'accord déglu leen de du ma wax turam du ma wax mais dama leen wax rek ban mafia lañ ne mais moom grand bi moom kooku àllaan lay def du ma bëgg a leeralal xam nga yu bëri bëri bëri mais si mais il a raison quand même sama gars yi am na ñu ñu fekk ci Auchan bi ñu tàll ñu dee loolu yëpp lool moom rappelé wu naa ko dofuma dina jàpp ma wax moom waxtaan wax dëgg ci la nañu waxante dëgg rek léegi li fi ne dëgg ñu ñoo xool nan liñ ko fi dindee wala nan lañ ko xeexee mais lii du dëgg moom man mii am naa conscience nit laa dof ma dina jàpp ma wax xam naa li ciy dëgg c'est vrai reyuñu 14 yëpp. Eh, fekk nañ eh, eh, Auchan Kër Massar buñ ko taalee ni ñaar ñu fa dee ak yeneen yu bëri ay accident loolu kay leer na <laughs> nañ c'est que boo gisee réalité da ngay jàkkaarloog réalité bi jéem wut solution moo gën ngay daw di nëbbutu réalité kenn du ci nëbb mandi taxul nga rëcc réalité mandi da ngay bu mandi ki resee rek nga jàkkaarloog problème bi encore problème dañ koy lijjanti kenn du ko daw kenn du ko nëbbatu tamit problème dañ koy lijjanti da ngay nekk da ngay nangu problème bi nekk en face du problème la problème mais problème problème problème pour c'est vrai les 14 ne sont pas tués par ñu quand même sénégalais bu bu fi xoma xoma mais ñu mu ne ma déglu le mu ne ma booy <laughs> mu ne ma booy aji saar booy bi ko jëli woon ci oto bi lu mu tudd man na mbay rek laa ci jàpp ñetti tur la am sax xaw ma lan mbay grand bi dóor ma tur bi quoi xaw ma lan lan lan mbay sax <laughs> grand ñoo bandi xaaral rek jox leen ma bi léegi ma wax leen lu ma grand bi wax ci affaire bi non moom ñoom ci mafia bi la bokk wax na la ko ci mafia bi la bokk instant yi dafa dem mission mission la nekk nekkul sax foofu dafa dem mission yi vite fait dafa war a ñibbi parce que wooy Sidi Ahmed Mbaye très bien mu ne ma booy booy bu yore woon oto bi doon jëli mu tudd mu ne Mbaye mu ne ma non Sidi Ahmed Mbaye ma mu ne dama la may lii nga défier ko neel Sidi Ahmed Mbaye génnal Sénégal nga yor moom moo ma jox solution journal journalu Sénégal nga def photo Sénégal journal boo xam ni xaw ma <laughs> grand paa yi band lañ mu ne journal Sénégal xam nga day am dat date mu ne neel Sidi Mohamed mbay mu ne ma man maa la wax ni Sidi Mohamed mbay dem na yoonam bu yàgg newul Sénégal. ngi maa ngi leen dégg ngeen naan ay na ko juge bi woo Sidi Mouhamed mbay dem na ma ne ko ah mu ne ma rawale nañ ko newul senegal mu ne défier ko père moo ne ma défier ko mu ne ma ko ne mu jël journalu Sénégal ak date nee mu photo wu nii ne maa ngi nii senegal gis nga journal bi maa ngi nii foto wu mu ne ko du mu ne ma ko mës a mu ne ma booy jarawaat maa la jox loolu maa la défier défier ko demal ci internet bi nga défier ko ne leen Seydi Mouhamed Mbaye kon mu amet mbay nekkul senegal mu ne ma dem na dem na yoonam mu ne ma da ne rek mu jël journal Sénégal observateur wala lu mu mun a doon mu jënd ko téye ko nii photo ak date mu ne ma du am mu ne ma dem na yoonam ma ne ko non père lay wax ni mu ne ma boo yéen xamu leen dara lu xew. xamu leen dara lu xew ci àdduna maa ngi dégg ngeen naan ay juge bi na ko woo kooku dem na mu ne enquête yi amul parce que ñaray booy yi nekkuñu fa xam nga waxoon nañ dañuy def ay commission de enquête nii nanga amul parce que ñi ray booy yi ram dem nañ ñi ray booy dem nañ nekkuñu Sénégal mu ne benn moo fa desagum nii te day dem Sidi Mohamed Mbaye lol motax enquête yoy mujul am parce que ñalen ray dem nañ lol deglu len bu baax nak ñi ray dem nañ xam ni palé mom ñi ngi di sétane quoi nan boy bi ku koy waxal <laughs> te ma len défier enquête bobu bu yawmi din du am ñu ray boy enquête bobu bo illaa yawmi din bobu ñi sango ñuy suuf bu ko kenen ñewul du am Macky Sall du ko musa def ñooñu dem nañ seen yoon nañ ci avion ba dem na fa dess dem nañ seen yoon mu ne ma Sidi Mouhamed mbay ma ne ko waaw mu ne ma tànkam newul Sénégal defee ko maa la ko wax mu génnee ma ma xàcc xàcc ma génne na man maa lay informé defee ko kon nag Sénégal Sidi Mouhamed mbay newul Sénégal mu ne ci oto bi mi àndoon ak ñaar <laughs> donc gannaaw bi dafa téye quoi mu ne ma ci oto oto Sidi Mouhamed Mbaye nee na aji saa rek new ci woon de amoon na ñaar. mu ne am na ñaari yeneen ñaari góor yi newoon ci oto bi ñeneen ñaari góor mu ne ko père léegi danga nga bëgg wax ne Ousmane Sonko moo ko laal mu ne moo mukk ci àdduna mu ne ma mukk ci àdduna booy Ousmane Sonko lu tax sax ma lay waxal nii mooy dama koy seedeel dëgg dama lay seedeel dëgg mu ne wallahi billahi barke xaadimal Moustapha Serigne Touba lay waatee nag mu ne barke xaadimal Moustapha Ousmane Sonko violé wu ko mu ne complot la mu ne complot bi nag Macky Sall <laughs> ah, am na ku ci génn benn chauffeur Mamour Diallo ñaar Sidi Mouhamed mbay ak Adji Sarr mu ne ñi ñoo newoon ci oto bi 4-4 bi lépp wax na ma ko 4-4 bi xaw ma dama fàtte sax tuuru 4-4 wax na ma tuuru 4-4 bi lépp Sidi Mouhamed Mbaye Adji Sarr ak ñaar mu ne Sidi Mouhamed mbay dem na ñaar ñooñu ñi ngi senegal xaw lan moo tax génnaguñ boobu ba léegi mais enquête boobu du am mu ne ma booy xoolal benn affaire lieu crime ñu ne foofu lañ defee crime bi ñu fexe nu mu gën a gaawee dàq kooku raxas effacé affaire yi jël kër googu mu ne ma ne ko mais garaaw loolu garaaw na mu ne ma voilà fu ñu defee crime dañ ko war a sele nan la ñu mën a waxee nii Ousmane Sonko moo violé Adji Sarr ci benn salon de massage salon de massage boobu ñu dóor pression borom kër gi mu dem nangu kër gi ci euh, ci ci ci ci ku jigéen ki yore ko nee na gouvernement bi loolu lañ def mu ne ma booy yéen est-ce que yéen a ngi xalaat <laughs> ma reetaan ma ne ko noo père yow di garaaw na mu ne ma dama la bëgg a xam dama la bëgg a wax niveau de mafia buñ am bu bu leen jiite boo da font rek mu ne ma nan la ñu mën a defee benn paako ñu ne moo rey ñu jël paaka bi delloo ko borom ne kee moo ko moom delloo ko borom borom paaka bi jël paakaam mu ne loolu fan la am foo xam ne dañ ne lieu boobu lañ defee crime bi lañ defee viol bi kon foofu dañ ko war a sele kenn waru fa nekk ñu dem def trace trace yeeg yëpp empreinte yeeg tout mu ne ma nan lañ ko mën a loqatee jël ko nangu ko jox ko borom ne ko téel borom dem duggal fa ay kërëm <laughs> mu ne ma lool fu ban enquête la musa am ma ne ko musa am mu ne ma voilà no ray nit après ñu jël paaka bi jox ko borom ne ko am demal yóbbu mu ne lool amul dañu war a sele loolu tëj ko gérer ko foofu enquête foofu fan la ñu war a defee enquête mu ne ma loolu nguur gi da ko nangu moo ko téye parce que mu dóor pression borom kër gi ne ko demal nga jël kër gi ñu dàq ndey xadi géy ndey xadi xawma lan nangu kër gi borom kër gi téye kërëm <laughs> nee na mu ne procureur ba léegi tegu fa tànk mu ne ma te loolu pièce pièce maîtresse la pièce moteuru enquête bi la foofu ñu ko doon defee mu ne ba suñu jonn yàlla tey procureur mosu fa teg tànk te dañoo waroon dem joué waat film bi foofu noonu joué waat film bi foofu mu ne foofu la ñu waroon dem joué waat film bi mu ne loolu ñu dem nangu ko téye ko lieu crime bi c'est plus scellé les lieux du crime dañ ko wara a fofu foofu kenn selewu ko procureur demu fa ñu jël affaire jox ko borom kër gi borom kër gi dafa njabotam ñoo fa nekk tay <laughs> père moo may wax de man waxu ma de nu rek mu <laughs> na nama mais boy bu n'avez ya compris mu ne mu Ousmane Sonko nak dina la waxal ben affaire boy anduma ak moma faruma ak moma man Macky gëm boy ci Ablaye wad lañ nekkon Ablaye wad def ñu yofu bandi xam nga

mu ne loolu yéemu leen yéen yéen doo leen ko waxtaanee rek mu reetaan dama booy booy Ousmane Sonko ànduma ak mooma ah, faruma ak mooma ah. man Macky Sall laa gëm ko sama gaañ la sama doomu ndey la mais booy naa la waxal benn affaire mu ne Ousmane nit bu baax la kooku nag yow laa koy waxal yow ñoom seen affaire seen guerre nee na ñun dañ ko yeex yëg. mu ne Macky Sall bi ngeen di wax ay moo nekk Macky Sall après lañ ko yëgal mu ne booy booy Macky Sall n'est pas le moteur de ce de ce complot ah ma ne mu ne ma mu ne grand bi da ko yéex a yëg après lañ ko ko yëgal mais gars yi bu ñuy dóor seen enquête bu ñuy def seen affaire yooyu pour mafia Ousmane Sonko nee na Macky Sall yëgul dara nee na ñoom pale ñoom pale xamuñu sax ni xoolal ñoom Mamour Diallo ñu ngi teg ñi ngi dóor affaire bi nee na Macky Sall bokk nañu ko mujjee yëg. ci lañ indi information bi palais boobu fekk na gaa yi tracé nañ ko bu yàgg ak aji Adji Sarr Mamour Diallo bi xaw ma lan ñu tracé nañ lépp ba taxaw mu ne boobu ñoom pare nañ quoi buñ dóoree affaire bi nag ci lañ doog a ñëw yëgal ko Macky Sall xamal ko complot bi ne ko def nañ lii Ousmane Sonko nee na Macky Sall santaane wu ko nekku fa. xamu ci won dara mais yeugal nañ ko te kin di rien consent mom moma ma ko wax mu ne ma kin di rien consent mais Macky Sall du mom mo bind scénario bi mom bind ko dañ ko après lañ ko ko tegal ci table bi néna ci la moom ci boppam sax ci lay doog a affaire bi mais xamna na nu mu démé lépp mu ne ma affaire bi machination la complot la. mais du Macky Sall mo tek complot bobu mais complot la bu joge ci Mamour Diallo deglu len de Mamour Diallo complot lu bu joge ci Mamour Diallo tu kenen Sidi Mohamed Mbaye bobu mo yek ak ak chauffeur Mamour Diallo affaire bi Mamour Diallo moko monter ndax 94 milliards ko Ousmane Sonko don yak Mamour Diallo mo monter li lepp lekk bu aji saar doon lekk sax si mooy kii maamun bi ngeen doon wax noonu maamun otel xaw ma lan maamun maamun génne maamour jàll lañ doon du maamun maamour jàll moo doon indi lekk aji saar bu mu dóoree plan bi ba ñu yóbbu ko maamour jàll moo ko dugal moo ko denc maamour jàll loo ko doon jox lu mu lekk lekk yi kër maamour jàll la doon jóge di dem maamour jàll ko doon commandé du samay wax de waxu père bu nekk pale la borom 94 milliards yi mu ne ma loolu la dencal Ousmane Sonko Mamour Diallo moo tëgg lépp résidence Mamoun Mamour Diallo moo doon commandé lépp di ko yóbbu moo fa dugal Adji saar moo ko fa bàyyi moo ko doon jox sax lu mu lekk Mamour Diallo man yi yu xaw ma ko ci ku nekk ku nekk palais du mu ne ma nag Mamour Diallo lépp moom la après lañ koy yéegal Macky sàll comme c'est dans le cadre de la politique Macky du duna déedéet bu leen ko ko def mais Mamour Macky Sall monté wul du Mamour Diallo ko monté après nag bu mu tàngee Macky di dugg ci moom tamit pour bañ a fàttelu parce que bugg nangul ma enregistré ko moo tax dafa am yu ma ciy jàpp rek parce que doon na ma booy jàppal bul ma enregistré lu ma enregistré enregistré wu ma ko sincèrement par respect dara du tax ma enregistré ko. résidence Mamoun donc mu boy, parce que damay bañ Usman fàtte quoi waaw Ousmane Sonko mu Boy, Ousmane Sonko laalul booy bi muna ne ma nag te la dara Mouna ne sar, Bula bu ni moo maase Ousmane Sonko everyday all day day kàcce amut mu ne sar masé wul Ousmane Sonko 5 fois wul Ousmane Sonko 5 fois ma ne ko per loy wax mu ne ma wallahi billah barke xaadimal mustafa lol lay masé wul Ousmane Sonko 5 fois bu kay teudé sax mu ne ma Ousmane ku bax la dama fi amone ben redressement fiscal mu ne Mamour Diallo ak Ousmane Sonko da yag de. <laughs> mune fa ma guerre bobu da yàgg mune ko mune depuis impôt et domaine la depuis impôt et domaine sen guerre bi mune non mune ma guerre impôt et domaine la du affaire 94 milliards Mamour Diallo ak Ousmane Sonko ñoo nekkon impôt et domaine mune ko mune ma fofu la guerre bi tambalé Ousmane Sonko génn benn deal bu Mamour jàll defoon foofu impôt et domaine impôt et domaine 94 milliards ci jamono impôt et domaine la de mu ne ma c'est une très longue histoire mu ne ma deal bu foofu loolu Ousmane Sonko da ko seede moo tax mu naan am na ay pièces à conviction te procureur xam na ni Ousmane Sonko am na ay pièces à conviction ndax foofu la Mamour Diallo bu muy dóor 94 milliards yi Ousmane Sonko ngi taxaw di ko gis loolu moo tax mu ne la. procureur nangu na jël ñepp sauf Ousmane Sonko père moy wax de ki né palé déglu leen dé ci samay wax mu ma Mamour Diallo bu muy door 94 milliards affaire famille la de ay affaire famille la dama foogoon non sax alalu réew mi la mais ndakate affaire famille la 94 milliards yi c'est vrai alalu réew mi la parce que ci réew mi la waron dem mais affaire famille la famille. mu ne ma Mamour Diallo tëdd ci 94 milliards Ousmane ko gis ko jaxaraan procureur jël na ñëpp sauf Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko dafa yor pièces yi moo tax usman Sonko du yuuxu fu ne nan nañ ma jël ma leeralal ko yóbbu naa dossier teg ko ci bureau du procureur xotti soxlawu ko woon mu seen guerre foofu leen tàmbalee bu yàgg la usman Sonko ñëw kalaate Mamour Diallo Mamour Diallo. Ousmane Sonko règlement de compte continuer ba ci monter guerre entre mais kon expliquer ak Ousmane Sonko mom nous expliquer Ousmane Sonko donc le juge avait avait classé ce dossier sans suite. l'affaire euh, Mamour Diallo 94 milliards yi juge bi taf taf mu paquet avec 108 suite Mamour Diallo nak matal Ousmane Sonko sen guerre bi dafa yag depuis impôt et domaine la mu ma boy dama amone ben redressement fiscal bu beuri xaalis bu beuri bu ma waron joxe mu ne dama lay waxal rek lenn lu ma jot dund ak Ousmane Sonko fit fee mu ne ma ma amoon redressement ma ñew gisentek mu ne ma jamono jooju nag Macky génn na ci nguur gi Abdoulaye Wade mi ngi nekk di ko jéem a tànc te ñun ñëpp dañoo mujjee daw ànd ak Macky Sall nee na ma am redressement fiskaal bu bëri sax ñu indil ma ko nee xaw ma nu may def te nekkatuma ci nguur ñi ngi xoslu xoslu ma ànd ak. Macky Sall nee na ma dem impôt domaine nee na yàlla def ma gisante ak Ousmane Sonko nee na ma waxtaan ak Ousmane Sonko mu ne booy sama bàmmeel laa taxaw di la waatal billaahi Ousmane Sonko taxawuma ci taxawaay bu rafet taxawaay bu nee na Ousmane Sonko moo ma ci dimbale ñu allégeel ma ko mu taxawuma mu ne ma booy sama bàmmeel laa taxaw te ànduma ak Ousmane Sonko faruma ak moom nekkuma ak moom man Macky Sall laa gëm encore une fois ma ne ko waaw mu ne mais dama lay wax lu mu ma defal redressement fiscal boobu Ousmane Sonko ma ci taxaw impôt et domaine ndax mënuma ko woon fay moo ma ci jàppale jàppale jàppale ba affaire ba dox nee na ma yëkkati ma ne kii nag nee na jour boobu biroom mi ngi sol lan bu bu bu xaw ma lan wax na sax couleur bi ndeysaan basin parce que mi ma dama enregistré oh, jàppuma loolu quoi mais bu ma ko def na wax wax na ma ne ma boo ko waxee rek Ousmane xam parce que wax na ma ko ne ma waxal rek mi ngi sol basin xaw xaw ma ban wax wax na couleur malheureusement fàtte naa ko mu ne ma mi ngi Ousmane mi ngi soloon xaw ma basin bu xaw ma lan wax ma couleur bi ne ma boo ko waxee Ousmane Sonko dina xam kan lay kan kan mais Ousmane Sonko du génn di wax mu ne ma maa ngi toog ak moom. Ousmane Sonko sol basin boobu noonu neena ñu waxtaan mu jàppale ma ci nee na ñu lekk fa kii ay croissant mu ne ma ñu lekk fa ay croissant <laughs> booy ñu lekk fa ay croissant nii ko nee na ma ne waa ji ku baax la nee na ma dem paquet sama benn maani nee na xaalis bu weex tàll ndax dafa kontaan ma ne ko bëri na mu ne ma waaw. ëpp na million ndax mbégte bi ma am nim ma ci jàppale nee na ma dem ba ci Ousmane Sonko mu ne booy déglul booy fis ma ne ko waaw mu ne ma ma woo ko mu génn nee na ma yëkkati alal bi jox ko ko Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko ne ko waa lii lan la mu ne ko noo dama bëggoon li ma jàppale ci li ma taxaw contentement bi ma ci am ma ne mënuma laa fay ma ne xaaral rek ma nee Ousmane Sonko nako no boy nako no gran, grand du moins nako no grand grand loolu xaj ni ñu diggante <laughs> waref la du li nga xamni ni eh, lu doy waar la munema Ousmane Sonko moma ma delloowaat moom mooy wax de munema Ousmane Sonko moma ma delloowaat ko don jox munema Ousmane Sonko bi nako no barki sayidina Muhammad moma wax billahi wallahi wa talahi mune mo ma Ousmane Sonko dafa mako delo wat ne mo non lolou xagne seen nit nit ay garabam Buma ma la mënee jàppale ci dara warna naa la jàppale séntu ma ci dara xawuma ci dara mako def ci xol bu sedd guy lu ma la mën a la ma jappale la ci non la demee mune ne ma loolu xamal Ousmane Sonko ma jelat sama Khalis, dugal sama pos tal sama auto dem sama Yon. mune bobu la ko gis boobu laa gëj a gis jarul ma ay fen kilifa laa yor sama mu ne booy man kilifa laa ci réew mi kilifa xam nga ma bu baax kilifa laa ci réew mi ma ne ko waaw loolu réew mi tey maa gënoon mën a jekk pour wax lu ñaaw ci Ousmane Sonko mu ne ma du ma fenal lii laa xam ci Ousmane Sonko lii laa ko xamal mun ne ma Ousmane Sonko. nit bu gore la daf ma delloowaat khalis bi barki la ila barki al mustafa la wat barki al mustafa daw ko don jéem mu ne ma c'était pas pour le korom mais li ma defal mo rafet ma don doon bugg a jox ndàmpaay Ousmane Sonko nee ma delloo ma ne mu ne jëlu ko ci deureum jëlu ci mu ma nak mais mo ma mais nak boy boy dinañ ci waxat de Ousmane Sonko. du fi doon président de ma ne ko ah kon de di ngeen ñu rey ñu mu ne ah baax na baax na mais booy damay dem seetaani euh, Marseille waaye damay seetaani ji Marseille dama ñëw benn mission vite fait rek taf taf dama ñëw benn mission damay demande nii quoi dama ñëw mission vite am sax ñaari fan nekkul Sénégal mission la ñëw taf taf mu ne ma damay ñëw benn mission am ay affaire yu may dox damay dem damay demaat damay demaat quoi maa ngi dem seetaani Marseille booy booy xoolal léegi ma ne ko grand nga ubbi ay brèche yu bari. yo xamni ni vraiment ay information touti daw fii daw fii daw fii mu ne ma booy jàppal li ma la wax bul ma enregistrer bul tuddu sama tur bul jege ci dara bul ma jegele dara dama lay expliquer rek boy, parce que xamna ni tu es de bonne foi lol motax ma ñew jege ci la wax la sama wax la sama gis-gis wax la mais sinon duma ko defal kenn duma ko defal kenn yow nak la ko def parce que dama ma la jox confiance quoi xam nga dama am respect ci yow parce que xamna ni wutoo ci dara gësuwoo ci dara xaaroo ci dara da ngay waxte yàlla tax moo tax ma di la partager ak yow en tout cas bul ma enregistré bul tudd sama tur bul ma taas waxal li may wax rek lu ma la wax ma boo buggee léegi boo buggee ma ne ko waaw mu ne ma boo jël sujet li ma la wax yëpp chaque chaque jour boo ma wooyee nee ma grand sujet bii laa bëgg ñu toj ci li ma la wax bu fekkee dangaa ngaa yeewu nga ne ma grand. dama bëgg ñu wax ci drogue bi nan la duggee ak nan lañ ko jëlee ak nan lañ libéré tubaab yi jàpp gaa yi tëj fu may wax ci justice bi mu ne ma bu bëggee justice nga bëgg a wax ma wax la dil yi nekk ci justice bi yëpp ba ci drogue bi nu mu fa duggee ay tonnes tonnes yi tonnes ñu jàpp leen jël tubaab yëpp libéré leen ñu ñibbi ñu jàpp nit yi ñuul sénégalais yi fa tey ñu nokk leen ci kaso yi jël drogue bi récupéré ko fan la drogue bi jaar lépp. mu ne ma loo bëgg par sujet par sujet nga may woo benn par benn ñuy toj benn par benn ma wax la lépp lépp ma ne ko grand <laughs> jàpp naa lu ma lu ma wax sax ma ne ko mais grand loo xam ci procureur bu bees beeg doyen des juges bu bees bi lii moom doy na waar de mu ne ma nii am na benn mot bu ma waxee dama ko sax noté nag euh, waaye lu mu wax lu mu ma dóorati sax mu ne ma mu ne ma waay benn benn moo wolof la waay dafa dafa am sens nag wax ci wax jooju dafa am sens moo tax bugg naa ko gis parce que maa ngi ko doon dama ko noté quoi mu ne mu ne mu ne lan voilà mu ne rakk ma ne ko waaw mu ne moo xam la benn affaire ñaari moo laa koy waxee mu ne noon du àtte xarit du àtte mu ne ma <laughs> yaa xalaatal yow lan laa bëgg a expliquer mu ne ma boy ma ne ko mu ne noonu bul nangu mu atte la xarit bul nangu mu atte la mu ne ñaar ñi ñu atte noonu du atte xarit du atte <laughs> mu ne falaa yem booy maa ngi seetaan sa mas boy boy bu wax loolu damay dem seetaan sa mas après nga waat ma ñu wax ci beneen sujet mu ma daal lii laa lay wax quoi dama ne doyen des juges ak procureur dama ne du atte xarit du atte mu ne ma ñaar yooyu booy jàngal léegi nag gars yi nañ toj ci loolu noon du àtte xarit du àtte <laughs> na père dafa garaaw de tey <laughs> boo doon xawoon nguuru Macky Sall bii yéen da ngeen foog ne yéen gars yi dañuy yëw yoot yoot yoot ba daj nguur gi di téye ko di ko bàyyee noonu quoi di ko bàyyi noonu ci ay caaxaan <laughs> mu ne ma booy noon du àtte xarit du àtte dama bëgg wax ni bu ni yow sa xarit lay sa xarit yow lay faral bu sa lay mais sa noon da yàq donc ñiy atte ay xaritu lañ ay noonu Ousmane Sonko lañ ma ay procès ci sax warul yegg ndax du atte du xarit day far noon day xeex <laughs> xarit day far noon day xeex mu ne ma noon du àtte xarit du àtte ndax sa xarit day bëgg lu la neex sa noon <laughs> day wut lu la lu la dugal lii da la ma wax mu ne doyen des juges yoo procureur yoo booy dama lay résumer benn affaire nga déggu déglul bu baax mu ne ko ah, waa père mu ne noon du àtte xarit du je fala sama match sonal coupé dem te info yi jox parce que mais sincèrement am na may <laughs> mais mais mais on a affaire à un gouvernement super criminel très très très intelligent très, très, très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Bon, on peuple peuple ils vont pas se laisser faire on est là pour la manipulation ne t'inquiète pas mon grand Abdoulaye lu def mais peuple vous soulever hein? <laughs> mais grave peuple bi ñuy soulever car bloquant peuple bi ñuy soulever wu mu Boy, c'est pas la même chose c'est pas la même chose fàtte na sax loolu ma ne ko lu tax nga wax mu écoute avec Abdoulaye Wade amna ay forces extérieures yu bokkoon ci xeex bi c'est différent de Ousmane Sonko mu ne avec Abdoulaye Wad, l'argent c'est le nerf de la guerre mune ne avec Abdoulaye Wade y avait des forces occultes extérieures yu ñewoon di xex contre abdoulay wad parce que sen intérêt mi ngi néwon en jeu deglu len de mom moy wax de ki may wax ni doomu nday magi Sall la mune abdoulay wad da Wade richesse su bi dem jox ko naar yi nangu lépp jox ko naar yi di régner en maître ci nguur abdoulay wad touba bi mer ci lolu imperialiste metti lu ko dem di ko il y avait la main des lobbies extérieurs qui ont infiltré des pour révolte Il y avait aussi ndem si A si Lamine Diak. M23 qui est une histoire de lobby Il y avait Lamine il y avait y avait de l'argent pour infiltrer du duggoon mu ne ma pas le peuple sénégalais ak Abdoulaye Wade mais il y avait des forces occultes yu faut ci xeex mais votre malchance vous n'avez pas de forces occultes parce que Ousmane Sonko a déclaré la guerre ak ñi nga xam ni impérialistes yoo xam ne mënoon naa ak ñuy Abdoulaye Macky Sall mais Macky Sall moom il est là pour impérialistes yooyu di leen tegal plat bi di leen servir di leen jox ay torchon di raxas loxo donc boo leen ñëwee là yéen ngeen déclarer la guerre à ces impérialistes yooyu noonu vous restez seul Macky Sall ànd ak impérialistes yooyu noonu ñu booloo nekk benn ñu duñ leen financer yéen yéen amu leen ay financement ñu tëj sen financement yi di ma expliqué ay mané ne ko bay <laughs> ma ko ah kon père affaire nana nar mu ne ma ah nar na garaaw trop parce que yéen ñi leen doon war ñu ñu daane Ablaye wad yéen andu leen ak ñom da ngeen leen di xex da leen di xeex Macky Sall ñooñu moom xam na loolu parce que ñooñu dañoo financé woon ñoom Massata Diack ñoom Lamine Diack ñoom euh, dañoo financé woon opposition bi dañoo financé woon opposition bi donc moo tax bu mu ñëwee ñooñu la jàqaat naar yëpp jël jox tubaab ya tubaab yi toog nekk à l'aise di mëq di sëq di mëq ngeen yor discours di xeex ñooñu force occulte yooyu yéen ngeen leen di xeex yéen ngeen dem bëgg a xeex ak nguur ñooñu ñooy ñëwaat ànd ak Macky Sall di leen xeex <laughs> ma ne ko ma ne ko grand yow li ngay wax nii doy na war de mu ne ma booy <laughs> man dama leen di seetaan ngeen di ne man da booy liveur yi nag du ma seetaan sax kenn sax mais xam nga des fois je te regarde ngay wax mais dama naan booy bi xamul dara ci affaire yi quoi dara moo tax ma bëgg la jàppale parce que xam naa ni tu es de bonne foi nga wax bëgg nga wax loo xam-xam te yaa ngi def recherche mais mais ba ba léegi duggoo ci vrai góom bi yow da ngay wër-wër góom bi quoi mu ne ma instant da ngaa nekk di wër góom bi nii rek di wër góom bi di raay bunt yi mais duggoo ci biir góom bi quoi mu ne oh booy boo suruxee ci góom bi da nga loxo day dem rek da dem rek da ngay dem rek da ngay mel ni mu ne ma boobu ba léegi sometime dama lay déglu booy ngay wër ci góom bi nii ba léegi duggoo ci boo duggee ci góom bi da réer. No lu ma ci jang nak moy non ñun ñi ngi ci dekk bu daywaar ñi ngi ci dekk bu daywaar waaye nak man defiyee naa ko kaw quand même né naa ko <laughs> euh, grand calcul bi na fossé ya nga wax waxu lobby impérialiste financement yi ah calcul bi mun na fossé de ci yéen calcul bi pep mu ne waaw booy loolu nañ ci waxaat <laughs> nañ ci waxaat de toute façon yow lu la jaaxal ci li ma la wax rek noté ko ñu def ci benn sujet spécial nga woo ma ci tel sujet ma expliqué la nga woo ma ci tel la waaye booy dama ne Macky nee na du jël lenge nguur gi di génn ci nguur gi di ko jox Ousmane Sonko muy dugg ci nguur gi. mu ne loolu moom takk takk ko téere te loolu dama bëgg nga koy yuuxu foo toll <laughs> ma ne ko ah mu ne ma déggul wala booy dama ne la. Macky nee na du jël nguur gi ci loxo góosam di ko jox Ousmane Sonko ci loxo droite di génn nguur di génn ci palais bi di jox Ousmane Sonko Ousmane Sonko du ko toog <laughs> Macky Sall nee na mun na ko jox ku ne sauf Ousmane Sonko ma ne ko kon nag booy sa waaye <laughs> nañ waajal suñu bopp de sama nañ waajal suñu bopp barki rasulullah nañ waajal suñu bopp xam nga waxoon naa leen fi waa ji dafa déterminé wu comme nu ma koy waxee rek dafa déterminé wu ñun tam nañ déterminé wu de parce que waa ji moom lu wax loolu dama dafa garaaw duma génn ci nguur gi duma génn ci pale bi di def passation di jël nguur sama loxo góos di ko jox Ousmane Sonko droite mu ñu ko toog <laughs> loolu wax jooju dafa garaaw de parce que Macky Sall du defee noonu ay changer dispositif am judiciaire bi yónni gars yi génn waxantu sang seen bopp euh, rafetal Sen bopp ne ñoom dañuy attee jël changer euh, def ay xaritam doyen des juges jël Benen doomu ndeyam def ko papay doyen des juges euh, cadre cadre apériste la papay doyen des juges Yalla ko yàlla yërëm papay apériste la ci ci élément moteur yi lañ ñom ñoo créer mais sa waay nañ bàyyi caaxaan papay APRis ki ki bokk ci élément moteur ñi créé APR APR kooku doomam moo nekk doyen des juges doomam mi ngi mel ni man ma créé sama groupe yulli wulli tulli am ku benn père boo xam ne moom ci père fondateur yi la bokk mu gañu ma jël domam def ko mu nek doyé des juges ma jox ko dossier Ousmane Sonko <laughs> sa va y. père bi na ma xarit du atté non du atté loolu la la le di wax fa la yem xarit du atté non du atté jël Bassirou Gueye waaw def ko ministre chargé des affaires juridiques de la présidence tek ko ci wétam xam nga gars nañ waajal suñu bopp de <laughs> affaire bi du yombee noonu de affaire bi du yombee noonu te père wax na wat na ci darajey Serigne Touba nee na billaahi wallahi barke xaadimal Moustapha ma ne ko waaw père mu ne ma Ousmane Sonko violé wul booy bi te moo ma nag te moo ma <laughs> maître El Hadj daa mballu ci pooju tubaab bi nee na daanu bu gaaw comme ginaar buy tëbu mu ne ma loolu moo tax defuñu ko viol ñu def ko attouchement sexuel nee na da doon da doon violé boy bi di ko jéem a pour jël génn bangalaa bi teg teg teg yulleeku ne ci pooju xale tubaab bi ba mu fees del del pale la nag waxu pale la de lu samay wax de man fekk ba yóbbu ma <laughs> te am na leen lu ma wax bu ma waxee rek am na leneen lu ma wax buñ ma koy wax muy nee na mu ne ma euh, El Hadj Diouf dafa gaaw a daanu ci ci pooju xale tubaab bi la daanu da ko doon jéem a forcer pour tëddee ko xale bi di bañ mu koy forcer mu ne ma pénétrer pénétrer wu ko nag pénétrer wu ko mais bu mu génnee bagage yi di forcer xale bi di bañ bañ lu rak tak nee na euh, na yàq na pooju xale bi yëpp yëpp la yàq ak sperme nii ak sperme nee na moo tax dañ ko jugé nañ ko France de jugé nañ ko dañ ko daané maître ela Diouf dañ ko jugé France ci attouchement sexuel agression ju euh, justice da ko daané fofu motax tax ñimatul dem France milliard boko joxé maître ela Diouf du fa teg tànk un grand pervers <laughs> ela Diouf bi lolou nak dama bëgg Ousmane Sonko jël ko lolou pale la joggé de information bu doy war fa billahi wallahi di forcer xale bi kuŋ kuŋ kuŋ ba ne kii génn sax affaire a daanu yàq pooju xale bi yëpp mu ne ma commandant bi bu mu ñëwee xam nga bëgg ma yegg foofu foofu moom bu kii rek <laughs> El Hadj <laughs> mun na daw mun na daw dem pale nekk parce que loolu pari la woon te daa am ñu ko fekkoon agression sur mineur attouchement sexuel daanu fa éjaculation précoce attouchement sexuel. violence sur mineur précoce sur loolu la fa mettre El Hadj Diouf def pare ñu woo police bi commandant bi ñëw nee na booy ci saase gars yi génn këy di diplomatie diplomatie bi kurti kurti kurti kurti ci lañ <laughs> nee na El Hadj Diouf ngi ñàkkutoo xëpp mu ne ma booy boo gisoon El Hadj Diouf mu ma boo ko gisee mu yor làmmiñ boobu di mbeb mbeb yi dafa naan booy xamuñu dara nee na El mi ngi ñàkkutoo xab xulli bëtam yi ñàkkutoo xab mu ne ma booy pari ñàkkutoo xab nee na booy xamuñu sax mu waxuñook sax moom ñu wax ak commandant bi ki jël ci ñu waroon jël si El yóbbu nañ ko de yóbbu nañ ko gars yi ñoo fan la waxati oh wax na wax na wax na wax na ma wax na ma oh, wax na ma wax ma euh, kii Paris waay non porte porte de non du porte de Clichy porte de Saint-Ouen xaw tour yoy moy faté quoi porte de Saint-Ouen mun naa leen d'informations, information ne ah, boobu pas ma mais mais n'ai pas indiwaat information porte de Saint-Ouen quelque chose comme ça parce que expliquez na expliquez ba expliquer ma fofu <laughs> nous nonu ñu gisante commandant ba genné kayit porte maillot porte maillot oh pop mi porte maillot oh porte maillot. non porte maillot porte maillot la porte maillot mu ngi noonu mu ne ma porte maillot lañ toog ak commandant bi xëcc ko teg nee na génn dossiers yi génn passeport yi génn teg di wan ni ki diplomate la non pour suul affaire yi porte maillot nee na ci saase ñu woote ci saase ñu woote pale dara Diouf mballu na fa mballu bu gaaw a gaaw gaaw <laughs> mu ne ma boy gars ay pervers lañ ñoom ñëpp ay pervers lañ ñoom ñëpp te lii nag moom sama sama karaan bi laa ko jàppee de li may wax nii yëpp nag enregistré ko dama ko teel a jàpp parce que li muy wax dafa am importance moom dana wax wax code porte maillot tout commandant bi bu mu ñëwee ñu woo ko ma nga fa woon. parce que tamit foo may jëlee sama mbir vraiment du ma ñëw wili pand la gars yi dem dañuy yomb quoi parce que xam nañ ña fa muna ma boy mu ne ma Madiambal Diagne way no dama faté Silip boy muna ma boy Silip boy majambal Diagne xale ba don doon violé so euh, xolal photo yaa ngi fi ak vidéo yi Silip bu wéx am ay cœur yu rouge ma lu ko mu ne waaw Madiambal Diagne ne ko borom Silip bu wéx bay am am yu rouge yi mana ko mu ma Silip bu wéx caleçon bu wéx Silip bu ma jambal Diagne bi ngay gis mu la làmmiñam ñëw ci ñun nii ngay gis mu yor làmmiñam non gars yi dañu yor vidéo viol ah ma ne ko noonu la mu ne ma mbaa jàmbaal jaañ viol weex bu am ay yu xonk silib baa nga fa weere ba léegi di lang ci liñ ba <laughs> ma Babacar Gaye xam nga Babacar Gaye ma ne ko Babacar Gaye ku ko mu ne waaye Babacar Gaye conseil conseiller président de la république Ablaye Wade tam dëkk Kaffrine ma ne ko Babacar Gaye mu ne mu ne ma wuu vidéo yaa ngi fi japp xalé bi na koy ñeppal sama nday ñeppal sama nday di yuxu mané ne ko ma babakar ca Kaffrine babakar gay Kaffrine pa mané vidéo yaangi fa bam nan xalé video bi ñeppal sama nday mi ngi fi mi ngi vidéo yaangi mana? da nga dangereux du ma la jox vidéo yi mukk nga gi mais dama né nel babakar gay rek bu ko xalé bi di di laal laali saf mu nan ko ñeppal sama nday ñeppal sama nday ci ay yuxu ñii ñoo ñu jiite kon nii ay Babacar Gaye ay Madiambal Diagne ay ñoom El Hadj Diouf <laughs> mu ne ma gars ay pervers lañ de mu ne ma booy booy dëkk bi yoon booy xamu leen dëkk bi sax ma ne ah, man grand nag newuma ci dëkk ba de donc dama ko bëgg rek mais nekkuma ci dëkk bi de nekkuma ci dëkk bi de waaw mooy dëkk bi moom ma ne ah, dëkk bi grand dama bëgg rek di ci reyante mais dëkk bi moom saay man man grand li nga wax nii sax taxul ma ki de man nawloo wu ma dëkk bi de. barke alxuraan nawloo ma dëkk boobu dëkk boobu nawloo bokkul ci dëkk yu ma nawloo de dëkk bi ni muy doxee voilà quoi loolu laa jàpp ci yu ma jot a wax ngeen jàpp ko ngeen moytu leen ay bandi lañ ay bandi yu doy waar sax ay pervers lañ ay bandi de grand chemin <laughs> grand boy boy rakk yow toogal foofu di wax rek yow toogal foofu waaw yow toogal foofu wax na wax naa la benn affaire nag bul fi sax tegagum tànk booy toogal noonu rek toogal noonu waaw yow li nga am na solo li nga am na solo gars dañ lay déglu li nga am na solo mais toogal foofu quoi toogal foofu toogal toogal yow di am jàmm toogal foofu mu ne ko waa merci grand dëkk bi comme seen porno moo raw seen porno wala Sénégal boo xoolee nii ay bandi lañ bu ñuy voyagé ay escorte girl yi la ñuy yóbbaale nekk ak ñoom ci hôtel yi di leen laal di leen tëddee bu Sénégal gars yi di taal taaloon bi ñoom ñi ngi ci hôtel yi yóbbu fa ay caga <laughs> ah bu El Hadj Diouf bi ah, bu El Hadj bu El bi noonu la mel de billaay wallaay vite fait mu daanu ba yàq pooju xale bi moom koy pooj bi la ma wax pooj mu ne ma pooju xale bi yëpp fekk dal ak esperma seetlu <laughs> auzu billaahi mina sheytaani rajiim ca ah! gars yi bu ñu changé wu lii dina garaaw de hmm. man moom lu ma ci gën a garaaw rek li mu wax quoi man loolu ma gën a yéem loolu ma gën a yéem parce que man bu ma waxee ne ma violeur bi ma naan mën a ma violeur bi ne palais violeur pale bi. manaa ko kan Omar Sarr Omar Sarr mu ne ma non du Omar Sarr mu ne ma du Omar Sarr Omar Sarr wul mu ne ma booy affaire yooyu dafa yàgg ci palais bi dafa yàgg dafa yàgg ci ñun de mu ne ma fii gars yi dañoo xam viisu yi gel lañ lay yónnee Macky Sall gars yoon yónnee nañ ko yónnee nañ ko xoolal dañoo dem mu ne ma gars yi ñun gars yi dañoo dem ba ci booy dem aéroport Léopold Sédar Senghor amoon na fa benn école boo xam ni bu pour affaire euh, kii avion hôtesse de l'air yi mu ne foofu leen dem fay booy yi nee dem leen ngeen bu benn audience ak Macky Sall boobu ma Ablaye dàq na ko nee na xale yi hôtesse yi gis nga sol mu ne ma seen seen dënn waaye mu ne ma booy xam nga gars yi dañuy mu ne xale yu rafet booy xale yu sol affaire yu xotteeku nii ñoo demoon seeti Macky Sall xoolal neen dañuy toog nii ngay gis pooj yi di génn pooj yi. poo ju weex tàll nee na dënn yi ka booy aj dënn bi mu ne ma mais magi bànd la nag <laughs> mu ne ma booy magi dafa foofu la échoué mu ne ma gars yi tegoon nañ dil boobu gars yi ñu teg loolu de ñu bëri mu ne ma fii ñu bëri gars yi seen vidéo lañ yor ah école ba mii foofu waaw kon boo rombatee foofu nga xool turu école bi nga ñëw nga jox ma ko école hôtesse boobu foofu lañ demoon jëli gel yuñ tànn xoolal fay leen pour ñu dem wut audience ak Macky sàll pour jéem ko fa iri mais yàlla neen mën a ma nag yàlla moo ko dimbale sincèrement defu leen dara te kël yi génn nañ seen pooj yi lu nekk wane nañ ko fa mais Macky gëmm rek gëmm rek taxaw fu taxaw UFPNC c'est possible voilà pour mu a ma nag affaire bi yàgg na mais man je te dis haut et fort Ousmane Sonko laalul Adji Sarr tëddeewu ko kon c'est clair loolu moom na leen leer IFPNC Macky mu ne ma noonu la rëccee ci affaire yi <laughs> donc kon nag sama gars yi man bu may wax ay waxu viol boobu nekk de Madiambal Diagne la ma naan ko ay Omar Sarr ma ne ma non Omar Sarr booy bi de Omar Sarr dafa monté mu ne Omar Sarr dafa monté ok école bi mooy loolu ah IFPNC ok c'est le nom de l'école IF PNC d' accord foofu la foofu lañ jëlee gel yooyu ñu waroon dem daane ji la euh, euh, euh, kii Macky Sall ci affaire sexe sexe quoi <laughs> pour wan leen gars yi niñ bandee dafa garaaw de dëkk boobu boo ko xamoon la ilaha illa allah <laughs> mu ne mu ma mu wax ma kii lu mu tëddati waaye Omar Sarr Omar Sarr jambal Diagne après ci la ma wax ma jambal ma mané ko Omar sar mu non ma jambal Madiambal violo jël ben xalé caga caga hors classe deuk Omar sar lu mu tuddati sax boy dem feulé boy dem euh, ki way ci kan à sucre boy dem ki euh, CSS boy dem fofu mu tudd deuk bobu deuk Omar sar bi way mun ne Omar jël foofu benn waa Jombas Diaw l'affaire bi la ma doon expliquer kaay bànn lañ de dagana mu ne Omar daa jël benn gel caga xam ni mu ne ma kooku nag booy mu ne ma booy kooku doo ko mënoo <laughs> ma ne man kay yooyu yooyu musiba ma ne ko ma booy ma man gel burul genn gellu jinne mun naa ko résister <laughs> mu ne ma booy mu ne ma caga la dem jëli Richard Toll dagana mu ne gel bi rondal bi mu ne rondal bi rondal bi rondal bi boo ko gisee xale bi mu ne ma triple taat la yor triple jet taat yi day nii nee na dënn bi mun nga cee mun nga cee nalaw <laughs> père bopp mu ne booy bi mun nga nalaw xoola ndegenaay mu ne ma gis nga ndegenaay dënn ndaw si moo ko gën a nooy dënn ndaw si moo gën a nooy naay gën koo rëy xale bi Omar Sarr tànn xale boobu ku ku ku ne danga koo violé ñëpp nangu mu ne ko grand waxoon naa loolu ci aji saar ma ne yi kuñ tànn baaxul dañoo euh, euh, dañoo yàkkamti mu ne ma booy Omar Sarr moo mun a tànn caka hors classe cest day ni innama dënn bi ne ndeganaay danga ciy nalaw di ci nàmp di ci nalaw mu ne ma kooku la yónni jox ko jombos jaw nee na xale bi jàpp jombos jaw di ko caw di ko caw vidéo ko nag vidéo ko di ko caw jombas jaw di ci rey boppam mu ne ma booy film boobu boo ko seetaanee bàyyi <laughs> bàyyi jaamu yàlla mu ne ah mu ne ma yëpp film boobu baaxul mu ne ma pale de justice bañ ko fa tegee dañoo tëj saal bi dañoo tëj saal bi ma ne ko père lay wax ni mën ne ma film jombas jaw jom ana jombas jaw ma ne ko jombas jaw de déggutuma ko fen mu ne ah caga jaa ko wàcce dañoo am ay vices ay vices yu doy waar caga mën mu ne caga ji moo suul jombas jaw

nee na ci ak nu mu non noonu noonu doon dawee ci ci néeg bi di topp jombas jaw diko ko dàqe jom nee na jom nee na jaw yalla yalla jéggal nee na mu ne bagaat jombas jaw yi naan fat fat fat badar badar nee na jombas jaw si daw ci bir néeg bi cage ci top ko <laughs> mu ne boy vidéo ba boo ko seetaanee bàyyi yàlla ma ne ko astafurlah <laughs> mu ne ma fils ma ne la gis nga koku dafa jàpp jombas jaw di ko diko di ko di ko caw jombat jaw na waxeet jóg di daw di wër néeg bi nee di daw wër néeg bi cagga ji nee ponkal bi topp jombat jaw comme dëmm bu gis ndawal di ko topp ak ngandaayam mbum mbum jombat jaw nee na nii muy daw ci néeg bi kooku di ko dàqee <laughs> ma astafurlah <laughs> <laughs> jombas jaw ma ne ko déggu mu ne suul na ko déggu na ko fenn booy suul na jombas jaw noonu lañ def Ousmane Sonko def nañ jéem nañ ko fi def ku ne ku fi ñëw dinañ la ko déema def mais bon foofu nag xam nga rek mu jéem a sànni Ousmane Sonko nag sa waa ji sa leader bi dafa dafa nalaw dafa nalaw bu fekkoon xam ne état dëgg dëgg dëgg bu ñëwoon fépp fu am jigéen da ko war a daw moom xamul ni plan yooyu yàgg nañ ko lalal gaa yi fii mais dafa ñëw daanu non ma ne ko yooyu loolu garab la nekk foofu la nalawee foofu rek la nalawee quoi parce que fii. opposition yi nga fi gis yëpp ñu daanu ci sexualité lañ leen daane mais moom tam mu ñëw nalaw xam nga defu fa dara mais dafa nalaw quoi foofu parce que moo leen may pièce à conviction bu ñuy exploité xam nga ma ne ah grand nuñ ci mën <laughs> nuñ ci mën <laughs> non mooy expliqué ah man man lu mu expliqué rek laa expliqué te am na lu ma leen dul sax expliqué tamit mais am na lu mu expliqué rek laa expliqué moom moo expliqué vidéo yi ñoom yor nañ ko vidéo ñoom yor nañ ko ñoom ñoom ñi nekk ci état ko moom gi moom moom ma wax vidéo man ma gis vidéo bi l'affaire Diombas Diaw ci journaux yi laa ko doon gisee moom moo ma décrire gel bi ni mu day ponkalum ngandam jigéen joo xam bu toogoon sa kaw doo jóg la taat yeeg dënn beeg lépp moo moo jàpp Diombas Diaw dóor ko ba muy bëgg a dee Diombas Diaw du wër néeg beeg taatu neenam nee na mu daqi ko mais fekk gel bi moom dañ ko fay Momar Sarr ministre bi ngeen di gis nii moo ko fay donc da doon liggéeyal Momar boo gisee gel bi joué film woowu yëpp c'est parce que luñ ko fay la affaire bi c'est facile de xel rek moo koy mottali gel bi dañ ko Momar Sarr ministre bu ñu newoon fii Abdoulaye de saaga fi Macky Sall dem tey nekk ministre moo fay gel boobu xaalis bu bari pour mu iri Jombas Jaw parce que Jombas Jaw moo nekkoon ku koy xeex foofu moo newoon opposant am waaw Momar Sarr bii Omar Sarr ministre bii Omar Sarr ministre bii dëkk Dagana kii la Jombos Diaw moo newoon opposant am foofu di ko xeex moo ko xañoon jàmm Jombos Diaw Omar Sarr bii ngeen di gis ministre moom la moo fay caga boobu pour mu iri Jombos Diaw kon leer na ñuy wax naan sax amoon na beneen jigéen tam bu fa nekkoon partout la woon mais gel bu rondet bi kooku moo doon dàq jombas jaw jombos jaw di daw loolu moo daane jombos jaw jombos jaw moo sonnaloon Omar Sarr ca Dagana moom moo newoon opposant farouche lu ko daane lii kese la sex sexe kese la moo ko daane jigéen ba pare vidéo ko jigéen bi moo vidéo jombos jaw vidéo dem jox ko Momar Sarr Jombos Jaw dégg loolu dem porter plainte bu ma bindee fii sax mu ñëwaat jom ministre bii ngeen di gis ñii ngeen fal de ministre sax fal leen ko Macky Sall ngeen fal mu fal ko ko neex Momar Sarr bii de ngeen nii la xaaral ma bindal leen l'affaire Momar Sarr Jombos Jaw sax ma ma am ci lu ma gën a wa xaaral Omar Sarr Omar Sarr Jombos Jaw léegi mu leer Omar Sarr parce que <laughs> yo, grand yi dañ dof de dañu xam de dañ xam l'histoire vidéo vidéo la Omar Sarr mo don daw mi ni Jombas Jawo ni xaar mi ni intellectuel mi ni xol xool ni nii nii kii la ngi di gis ni vis kessa gis nga bandi yu mag ni ñi vice kese lañ vice kese billaay wallaay Omar Sarr kii kii moo ko tegoon plan kii kii mi nii kii du minis kii moo ko tegoon plan Khadija Mbaye très bien turbaa ngi noonu Khadija Mbaye <laughs> Khadija Mbaye turbaa ngi noonu Khadija Mbaye grand bi nekk pale di ma wax Khadija la ma wax nee bi nga xam ne dënd bi moo moo gën a nooy éponge moo gën a nooy ndegenaay sax la wax ndegenaay Khadija Mbaye la tudd kii mooy Momar Sarr Omar Sarr mi ngi nii kii kii moo yón moo fay caga bi mu iril ko opposant am ci la yàq carrière am mi ngi nii kii kii ngeen di gis nii moo ne woon ci Ablaye Wade tey mi ngi ci Macky Sall ministre la Khadija Mbaye jàpp Jombas Jaw dóor ko ba muy bëgg a dee caw sax la wax mu ne ja Jombas Jaw Khadija Mbaye jàpp Jombas Jaw caw ko caw ko ba Jombas Jaw ni tëpp ci kaw lal di daw ci biir néeg bi nee na Khadija Mbaye ak ponkalaayam nii di daw di daw di ko dàq Jombas Jaw nee na bagaasam nii di lang mu mu koy wër néeg bi ana ko kenn déggatu ko kenn déggatul Jombas Jaw Khadija yàq na carrière Jombas Jaw ku moytuwul jigéen ñi. ku moytuwul nekk ci politique bii neen dangay ngay jigéen wala da ngay eh, eh, jigéen <laughs> moytu leen loolu de politique politique bii da moytu jigéen di toog ak moom di wéet ak moom wala di partager moom parce que gars yi dañ ciy liggéey xaalis te gars ay sadik lañ wutuñu ci seen yoon naw ci mi ngi nii le pilote mi ngi nii Jombos Diaw a ngi nii Omar Sarr nii xool Jombas Diaw yi nii Omar Sarr ngi nii histoire baa ngi nii Khadija Mbaye jàpp Jombas Diaw dóor ba muy bëgg a dee ba Jombas Diaw di daw ci biir néeg bi Khadija Mbaye di ko dàqe comme comme euh, lu mu euh, film xale <laughs> mi ngi nii le délibéré le délibéré concernant cette affaire est tombé hier tous les proches de l'ancien ministre Omar Sarr ont fait l'objet de poursuites judiciaires, à l'exception d'Abdou Aziz Diop qui a été relaxé. Gang Lone, Moufaïlen Nudem Tchagaba. comme Tom Edjiri, les mises en cause ont été condamnées à six mois de prison avec sursis. C'est Omar Sarr moo jël ay bandi ñu dem jëli jom ñu dem jëli Khadija Mbaye xam ni caga bii moom kii moom <laughs> jombos day daanu caga ba dem iri jombos jombos nangu mu ngi noonu am na ku fa Khadija Mbaye sax moom moo nekk miis Jongoma man loolu sax xaw ma ko gis nga Miss Jongoma man koy wax na ko nu waxee taat yi mu ne ma booy triple taat la booy Khadija Mbaye yor dënn bi nag mu ne ma comme comme ndegenaay ndegenaay sax gën na nooy les mises en cause ont été condamnées à six mois de prison avec sursis et des dommages et intérêts s'élevant à 20 millions de francs CFA Djombos Jaw a été victime d'un chantage politique de la part de certains membres du Parti démocratique sénégalais ñom ñep parti démocratique lañ néwon jombos jaw di xex Omar Sar, Omar Sar gis gaay yi ñu dem wuti Miss Jongoma tekk ca fofu dënn beeg down bi koku japp jombos jaw sul ko door ko ba muy taw ak ak sulum di batar batari door ko ba mu faatu yak na carrière am ne ma boy yooyu am Ousmane Sonko On est vigilant quoi on est vigilant ci lolou fi y a na ci ñun ci ñun ci politique na vigilant fofu rek la boy bi nalawé quoi fofu rek la boy bi nalawé defu ko dara mais fofu la nalawé il faut être vigilant Lolo grand bi mom momako wax donc euh, <laughs> ça va gay nañ def beaucoup attention nañ def beaucoup attention mi ngi scandale te vidéo ah. Omar Sarr vidéo yi la yor mi ngi nii scandale sexuel ouverture du procès jombas jaw boo ko di nga gis demal bind scandale sexuel ouverture du procès Diombos Diaw mi ngi nii tribunal de Dakar mi ngi nii affaire yi leer na politique Sénégal mënu fi ne mu nekk kayma affaire yu dëmm affaire lekkante affaire éliminante te lépp ci jigéen lañ koy jaarale nga xam loolu. même boudé da ngay fajul ko dara sax di dem non way sa way motax gaay gars yi tam ñoom bugg bugg duñ ko bayi de. inde yi wax wuur fa mu genn ne carte corps yi bu len bougé ndax xaar rek ma dem <laughs> sa waay dinañ ko takal bépp xétu takal bépp xétu takal way ñun duñ joxé ñun duñ joxé rendez-vous suite beauté hein ah suite ki duñ ko joxé rendez-vous hein <laughs> mais euh, parce que ay bande lañ ci lool lañuy doxé lool moy rouage système bi. système bi ku leen bëgg a yàq ñu yónnee la jigéen te dañuy tànn ji jigéen bi jigéen bu mool fee teb dañuy xam ku ci nekk vis am dañuy xam loolu kon Jombas Diaw bi pur produit Abdoulaye Wade la kii nii moom lañ jàpp moo yónnee ab prostituée mu dem daane nit mu yor vidéo am Jombas Diaw daa xëy gis dagana ñëpp yore vidéo am ci portable noonu la ko xamee ah noonu ak chantage ñu koy chantage gel bi gel bi vidéo bu mu paree jomba ja bu mu demee yoonam la ko gel bi largué vidéo bi Khadija Mbaye bi yónnee Jombas bum Jombas Jaw ne rek jot vidéo bi di gis na ko Khadija Mbaye di di dóoree foofu muy yuuxu di wër néeg bi mu koy seetaan nii jommi Khadija Mbaye bu mu paree da ko jël jox ko Omar Sarr seen ministre bii Omar Sarr jël ko da ko léegi sànni ko ko message mu jël message bi noq ko ko ci whatsapp am Jombas daw gis vidéo di xool boppam nii Khadija Mbaye di di téegal maamam ba mu ko téléchargé gis vidéo gis boppam nii ci mu jommi ci la dem porté ji plainte <laughs> vidéo ba gars yi jot nañ ko fekk Omar Sarr noonam jot na ko téye jox gars yi gars yëpp <laughs> ne ko vidéo baa ngi nii de mu dem euh, ci la ci la yàqoon ndaysan ba legui ndaysan il n'existe plus ndaanan dee na ndeysaan ndaanan dee na ndax jombos mu ne ni rek ñu ne ko vidéo vidéo ah, kay kay buñ la daqé tagé ci daq la ngay batar batar taatu nen so koy bi di lang di lang di batar batar ni mi ngi ni de mi ngi ni vidéo vidéo mu ne ni yak nañ fam donc nit boo nekkee ci politique da ngay stratégie da ngay defaru da ngay moytu da ngay calculer wallaay boo ko deful ndaanaan ndaanu de billaay wallaay kooku noonu dafa sosoon rëkk ci Omar Sarr may kon dara tey déggatu leen ko fenn ndeysaan ndax vidéo sexuelle moo ko yàqal laay fam jambal jañ bo gisé mu dem ànd ak Macky Sall di saga nday Ousmane Sonko matin midi soir mom tamit caleçon bu wex ba bu am euh, euh, ki euh, cœur yu rouge Babacar Gaye ñappal sama nday moko fi bàyyi de tay di gis naa ko muy défendre Macky Sall Babacar Gaye dem len ci pasam ngeen nako Babacar ñafal sama nday Babacar Gaye rek bind leen bo nee Facebook nga ko fa fek muy dul rek ñappal sama nday nee leen ko ki du Babacar ñappal sama nday dem len fofu ci ki ngeen ko ki du babakar ñeppal sama nday day jot babakar gay xaram ma bind Babacar gay ma nga fa di duur rek di duur rek legi Ousmane Sonko ki la andal de Abdoulaye Wade Macky Sall mi ngi ni waa ngi ni ba ñeppal ñeppal sama nday a ngi nii leen pa bi mi ngi ni ki la ki mi ngi ni ki la ki la caga ji don yi mu na ñeppal sama nday di saga rek video yang fi ki la ki mi ngi ni te boo leen demee nag xolal fa lay nekk xol xolal na aw wax ko woon créé na passé pour ñu aimé ko xol ma ngay toog xola cagg ji xola pervers bi xola ma nga def pour ñu like booy like di yàqu jigéen yi nekk ci paasam génn leen de pervers la de cëy bu leen jekkoo kii mooy monsieur ñeppal sama ndey mi ngi nii de di duwul ne booy like di yàqu booy like like pervers page pervers ay bandi la ñi ngi nii tey jii moom moo moom moo ànd ak Macky Sall fu mu ne nii maki sal cent pour cent mi ngi nii xool ko xool xool le waa ji mi ngi nii kii mooy li mooy Facebook am mi ngi nii ngi de moytu ko de kii mooy monsieur ñeppal sama di yuuxu caga bi ko di kol laal laal yi metti sax mooy waa ñeppal sama ndey mi ngi de no, raam yaa ngi nii de xool ko xool non moo ñëw toog ci moo toog ci sëriñ bi nii moo ñëw toog ci ci ci bi <laughs> neex mi ngi nii ci suufu oomu sëriñ bi de xool leen seen waa ji mi ngi nii uufu ci suufu sëñ bi mi mi mi ngi nii xoolal mel ni ku eesal xoolal affaire xale yi la def paa la de kii mag la de mais xool leen ni bu xale yi mu def imati koon xale yi la def xool leen ko paasam officiel mu mel ni ku yanu ab caga nii xool xool ko ndax ñi xool comme xale bu buudaru de te kii conseil la woon te mi ngi nii Kaffrine grand bi kay waxoon dama ni kii Kaffrine la dëkk Kaffrine mi ngi nii ngi nii xool leen xool leen xool xool du ñu bàyyi jigéen nii du ñu bàyyi jigéen mukk mukk mu xool ko xool leen xool leen foo leen fekk kay ñii ilaha illa tey suñu xoole ñoo toog ci tale yi di wax de ñii kii de kii la waa jaa ngi nii de waa jaa ngi nii de ñii de ñi ngi nii ci pale yi di ci xool xool leen paa bi rek xool leen paa bi page lam la mi ngi nii ma fekk ko fa man kay bu ma ko grand bi waxee laa ne jurub dem dem ci page mu wëri ko ma fekk ko muy défendre muy défendre Macky Sall na wuy Macky Sall euh, mi ngi défar hôpital sax hôpital bi légui mu pare hôpital jam ñaajo boy da ngeen yakam ti a waw <laughs> wa ki du cagati ki du ña musse ñafal sama ndey <laughs> way rew mi neex non mais c'est c'est incroyable mi ngi ni de xool leen ko mo Abdoulaye Wade mi ngi ni mi ngi ak Wade de mi ngi nii de adduna rek lañ bëgg buloo rek mi ngi ni de ak Abdoulaye Wade pa la de ki mat ñu maam nii nii ak ablay Wade de nii ni de tey fii loo leen fi def mu feeñ gars yi ñi ngi pale de gaay yi ñi ngi pale ñi ngi pale xoolal di génne <laughs> ñoom ay règlement de compte lañu def gars ak ñoo dee xool leen mi ngi ni ak Abdoulaye Wade xol leen ko gis nga bopp bi daa weex tàll te dañ dañ koy ñuulal ba mu ñuul xol ko bopp bi daa weex tàll mais dañ koy ñuulal ba mu ñuul lépp pour pour wër ceeb bu sew bi xalé yi jigéen yi mujj yi ni la wër de dañuy wat seen sikki mi wat seen lépp ñuulal seen bopp yi ba mu ñuul bi jaaw du fa taxawaalu ñu xale xalelu xool xale xalelu laa la wax xol da ngay des fois nga gis bopp bi ñuul des fois nga gis xol fii bopp baa ngi ñuul kukk des nga gis bopp bi nga gis bopp bi ñuul kukk nii la ñuy def di di wër xale yi ñooy ya, ya, yàpp bu sew bu amul yax bi yàpp bu sew bu amul yax bi rek lañuy wër wax la ko yii rek lañuy wër ñi ngi nii yii rek waaw yàbb saw bu amul yaxi daal lañuy wër ñoom ñii <laughs> ilaha illallah kii la de bëgg xale xalelu xool leen xool ko xool ko bëgg xale xalelu xoolal kii de kii de lii bu caga ji bu mu koy laal de waxul woon yii fii bu muy yuuxu vidéo baa ngi fi nag grand bi père ne na ma rakk vidéo baa ngi fi yow demal ba ci moom Babacar Gaye ma ne ko kuy Babacar Gaye mu ne Babacar Gaye xam nga Babacar Gaye conseiller euh, à la présidence ba Babacar Gaye léegi mi ngi ci Abdoulaye mi ngi ci Macky Sall Babacar ma ne ko Babacar Gaye rek laa daw ne tarak tarak gis Babacar Gaye ma ne ah waa waaw Kaffrine waaw Babacar mi ngi <laughs> kooku mooy monsieur ñafal sama ndey cage ji japp ko di ko lalal yo xamne muna way ñappal man nday ngi jul ñappal sa mané ko no astaghfirullah la père muna mo way bo yow lu lay won dogu da vidéo baangi fi mu ngi demal nga laaj ko lolu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم tay ñun suñu rew bi hmm tay ñun suñu rew bi réew mi garaaw na illa réew mi wow wow wow wow wow wow wow te yeneen dinaa leen indilaat yeneen nag bu grand bi bàyyiwul parce que grand bi eh, yàlla buñ ko yàlla buñ xam kan la waaye yàlla buñ xam kan la yàlla na leen yàlla yàlla na leen ko yàlla nëbb ñoom añoo bi la ñuy wër de añoo douze kilos yu amul yàpp yu amul yax eh, añoo yooyu la ñu wër yu añoo yu amul yax yi nga xam ne duñ fat duñ fat dañuy warax dañ koy warax wann yooyu la ñuy wër de ay bandee ngi nii ay pervers la ñu jiitu ay pervers ay bandi ay bandi ay pervers ñoo ñu jiite billaay wallaay non dafa graw dafa garaaw de jox naa leen ñaar nag wax naa leen Babacar Mbaye te wax naa leen tamit waa ji sant Mbaye tam Babacar gay wax naa leen waa ji sant Mbaye neewul Sénégal maa ngi koy defee kër googu noonu ñu ne dañ fa defee crime bi viol bi dañ ko waroon sele sele wuñ ko maa ngi wax Macky Sall lan la def ba kër goo xam ne nee nañ foofu noonu mooy pièce à conviction ñu war fa def enquête yi ñu jël ko jox ko borom kër gi muy effacer traçabilité yëpp effacer lépp lan moo waral loolu loolu question la bu ma laaj Macky Sall ñaar booy bi sant mbay Mbaye Sidi Mohamed Mbaye maa défier Sénégal ba Sénégal daj génn na Sénégal te grand bi laaj naa ko ba xam mi ngi Europe mu ne ma noo nekkul Europe mais du la wax fu mu nekk booy mais jege na la. nii la ma ko waxee Sidi Mouhamed Mbaye newul Sénégal défier naa ko ak képp ku dugg ci dossier bi na ma génneel Sidi Mouhamed Mbaye Sénégal benn vidéo bu mu yoree journal bu Sénégal bu suba wala ginnaaw suba ne ma maa ngi nii Mollah da ngay fen ma bàyyi live yi Mouhamed Sidi Mouhamed Mbaye je te défie bu nga ma arrêté live yi génnal nga yore journal bu mujj bu génn jour boobu noonu nga toog ci Sénégal fu ñëpp xam nga ne maa ngi nii c'est faux boo ko defee ma bàyyi laay billaahi wallaahi wa taalaahi boo buggee dimbale Macky Sall génnal Seydi Mouhamed mbay daw na yóbbu nañ ko te grand bi nee na nekkul Europe ba mu nekk fu ne mën a booy du ma la dëkk bi waaye jege na la lool nii la ma ko waxee waaye jege na la lool kër ga delloo nañ ko borom. procureur tegu fa tànk defuñu fa selewuñ ko Siri Mouhamed Mbaye rawale nañ ko ñi rey booy raw na dem nañ ñi rey booy dem nañ lépp lépp non mënuñu montage lool dañ ko am vidéo laa la wax mu photo de vidéo loolu kenn mënu ko montage montage bi mënul vidéo Sidi Mouhamed Mbaye yor nii wax ak man ne ma moolaa du deug ma ngi ni yor journal la soleil wala journal las wala le quotidien ma ngi ni maa ni yor gi ngi may gis ma ngi ni tiara xol caaro def ni woné bu ko defé ma bay live yi lolou kay leer na man kay sama source dama ko tek fu wor kër gi ñëpp xam nañ ni eh, jëlaat na borom jëlaat na kër gi ba génn fa ndaw si lama wax kay man kay le défi yéenay werante yéen moo am ñuy werante ci man li ma wax waaye ñoom ñu ne ci pare tey tey ñoom duñu werante de laaj bii dañ koy déglu ne ñoom ñi ngay wëri kan moo kan moo woo moo la mais ñoom bokku ñoo yéen tolloo la de jombos jaw moo doon daw jombos jaw moo daw ci néeg bi la caga bi toppoon Khadija Mbay moo dàqawoon jombos jaw mu def taatu neen Maître El Hadj moo mball woon ci euh, pooju tubaab bi moo fa daanu daanu bu gaaw sax Maître El Hadj Diouf Gaye Babacar Gaye moo doon wax ñepp ñeppal sama ndey bu ci nekk boo leen kii ngeen dégluwaat laay bi ndànk-ndànk benn bañ leen ci échappé tur bu nekk wax naa li mu def borom silib bu weex bi am ay ay ay ay cœur rouge Je Diagne éjaculation précoce mooy maître El Diouf ay secret d'état la yeneen ñi ngi yalla, yalla, def rek ñu bañ sincèrement yalla, yalla, leen yàlla y'allait y'allait leen yalla, y'allait ba duñ xam duñ gis ma ñaanal leen ma loolu ñu bañ a mus a découvrir fan lay tibbee samay ñeex saa yu chaque jour ma dem tànk ñeex ñëw jox leen ngeen naan ndànk ñu naanandoo ci ñeex mi yor suñu kir daan di siroté gut par gut met El ku ne wax naa la met El wax naa leen ko Babacar gay expliqué naa leen def Jombos jaw Omar Sar, eh, ñoo ñëpp bu ci nekk wax naa leen ko nu mu demee dinaa ñëwaat nag incha allah bu fekkee yàlla def na te góomu ni dinañ ko teel a jàpp parce que ni may waxee nii duñ ko mën a capter parce que il faut ma dugal ci samay stratégie ba duñ ko duñ xam fan laa koy jëlee <laughs> parce que loolu moom yàlla chance chance bu ma may noonu moom chance la chance bu neex la sax chance yàlla yàllaa ko booleeg man loo gëm rek mu gëm loola boo nee ci dara def ko te yàlla tax yàlla moo lay yabal ay doomu aadama ñuy ñëw di la waxal te yàlla tax di la dimbale te yàlla tax man affaire yi seen tuuma ci dara seen tuuma ci dara. motax yalla dima di tamit dima sutural dima bolé ay nit yu nek bir palais ñi ñew wuluma gëm ma di dé nank di xamal nit ñi doomeeraam nit ñu bona bona bon kii kii kii kii kii japp len lolu en attendant kan booy borom silib bi kooku moy ma jambal jaaj borom kalson bu weex bi bu mu fa baye calçon bi ak ak ak bu am ay ay cœur yu rouge ma jambal Diagne la bu leçon yi suyee rek ngeen wax bu fekkee dafa am lu leen ci ki ngeen tellement parce que damay dem Khadija mbay moy borom rondet di mom kum nan nan saint yi comme ndeganaay mëna ma euh, doom rak mu nga ci teud nalaw ci saint yi tali triple tat la ndakate koku mo jëloon sax miis jongoma bay <laughs> gay ñoo feras <laughs> <laughs> ñoo gars yi ñoo bon wax naa leen tamit ne premier ministre bi c'est en septembre dañuy am amnistier Karim Wade loolu tamit jàpp leen na <laughs> ay révélation yu garaaw la de yoo xam ne suivre leen ndànk rek suivre leen ko ndànk <laughs> lépp leer nañ maa ngi fi pour yéen Sidi Mouhamed Mbaye daw na ña reyoon booyee daw nañ non man fu ma gën a neex ci grand bi nag grand bi dafa nii booy ñaataa dee <laughs> père moo garaaw booy ñaataa dee ngeen ne ko quatorze <laughs> mais booy yaa neex ngeen ne quatorze la policier yi rey mu non waxul policier quatorze lañu rey la wax quatorze lañu rey ma ne ko waa quatorze mu ne ma noo rey ñu quatorze mu ne ma booy neuf lañu rey neuf neuf lañu rey

noonu la ma ko ne ma kenn kese moo fa des te xaw ma lan moo ko fa téye sax ma ne ko ah, mu ne ma enquête boobu du mus a am du mus a aboutir rey dem nañ ngeen di wax ay waxu police enquête a am ña leen rey newuñu fa ma ne loolu moo ma gën a yéem loolu moo ma gën a yéem bu demee ba ne ma neuf neuf rey cinq yi accident la di ma wax nan lañ dee ay ci Auchan bi am na ñaar ñu ñu fa ay corps inerte téye buñ taalee foofu di expliqué ne ma neuf yi lañu rey ñu leen rey cinq lañ ñoo rey neuf yi ñi rey cinq yi quatre yi kii mi ngi Italie kii mi ngi Belgique kii mi ngi France kii mi ngi xaw fan <laughs> Seydi Mouhamed mbay ak Adji Sarr ak sofooru ma ma Mamour jàlloo ak keneen ne ma si Mouhamed Mbaye dem na ña chauffeur Mamour bi moo fa des ak ak beneen booy ñi foofu ñoo ñëpp ci oto non daj mais affaire vrai mafia la vrai mafia la cuut mu ne ma moo tax booy enquête du mus am booy bàyyi ma dem waay dama leen seetaani Marseille booy sama équipe bàyyi danga may wax loo bàyyi ma dem bàyyi ma dem bàyyi ma dem rek <laughs> ne karaj coupé ndeysaan ci li ma jot a jàpp lii laa leen wax déglu leen bu baax <laughs> moo tax gars yi eh, dem leen police parcelle waaye dem leen ngeen jël vidéo woowu ma laaj leen benn question kii rey booy bi visé booy bi yoroon drapeau bi nii vidéo bi Sénégal yépp yor nañ ko est-ce que kenn mus na dox ba gis ko ba ne kii la xàmmee naa ko question laa leen posé ma ne ki booy bi ñëpp gis nañ vidéo boobu wàcce longoore nañ ko professionnel yépp xool nañ ko gis nañ ko est-ce que kenn mus na dox te solu kagulan ah. est-ce que kenn mus na dox ba ne mus na ko xàmmee xàmmee na ko xàmmee na ko kenn. bu doon loolu dañ naan police parcelle ku dem police parcelle dem fekk ko fa kenn mus ñëpp a ngi dem police parcelle kenn musul gis kenn kuy dox ne kii kenn Sénégal laa défier ba mu daj ku dem police parcelle dajale policier yëpp doo ko fa gis doo ko fa gis yéen a ngi dem police parcelle ñëpp a ngi fay dem kenn musul ne kii gis naa ko kii la xàmmee naa ko te ñëpp a ngi yor vidéo bi kenn <laughs> sama gars information yi du man maa leen koy jox de ab information yu jóge pale la doomu ndeyu Macky Sall barki laa ilaha illallah billahi wallahi wa taalaahi doomu ndeyu Macky Sall ab kilifa moo ma koy xamal te duñ ma raconter lu may woola ma koy gis mu naan ma bul ma enregistré bul ma photo bul ma screenshot déglu ma ma waxal la nga aviser sénégalais yi loolu laa am ak yow bul tudd sama tur bul ma cege bul ma laal déglu ma ma waxal la nga waxal leen boo doon du buggul police parcelle ba jeexal ko tàkk doo gis ki rey booy bi dem na yoonam mu ne la enquête du musa am ndax ña rey booy sax yóbbu nañ leen say nañ bu yàgg ma ne ko ay policier lañ mu ne ma policier <laughs> ba léegi waxuma nag nangul daal ne policier lañ looloo ci gën a garaaw daf na ñu ray booy bi ñan lañ ma ne ko policier mu ne woon <laughs> ba léegi waxul moo police la ñun ñuy wax police la de mais moom ba tey confirmé wu parce que man maa ko ne police la ba léegi confirmé wu ma ni ay policier lañ sama gars xool leen vidéo bi bu baax a baax a baax xool leen vidéo bu ñu rey booy bi yor drapeau bi. police parcelle seen oto bi mi ngi taxawee ne la ñoom ñëpp ngi taxawee ne waa ji yore fiis yi nii wéer ko ci oto bi fiis yi moom di longóore di longóore di longóore ba ne puf dafa dóor ne tëb rek mel ni koy ku doon ku doon longóore kii ci lañ demee seen yoon police parcelle ñoo newoon ci ginnaaw mais waa jooju doon longóore du police du police parcelle de déglu leen bu baax li ma leen di wax information yi waar la yu mu laaj yu laaj ku nekk di xalaat nee naa leen policier boobu ngeen di wooyee policier boo leen demoon ci junni ot police doo leen ko fa fekk junni police doo leen ko fa fekk te musu nit musul romb nit ki naa ko te ak visage ouvert la ko defee rang dang fang oto police bi nekkee ne la kenn armé wul moom kese mu yor fusil yorul fetel bu ndaw de fusil yàlla yor fusil moom kese ka fa yor. xool leen ñu nekk ci wetam kenn yoru ci fusil moom rek moo yor fusil di longore di longore di longore di longore di lo ni ko tuf rek tëb wane ginnaaw noonu la ñëpp yem ci vidéo bi booy bi daanu deret bi du tuuru ñu koy yanu noonu loolu leer na de moo tax mu ne enquête du Moussa am enquête du Moussa am xaaral ma ma ma war ma ma ma ma xool lan mooy ban titre laa mën a kii pour tegaat leen vidéo bi ngeen xool <laughs> oh, garaaw de Sénégal <laughs> oh ca ca ca ca xaaral ma bind rek un policier sénégalais xaw ma lan lañ ko titré nag sur un manifestant ba parce vidéo rek laa indi quoi ngir live bi ma def dégluwaat dégluwaat leen ko waaye ngir vais dégluwaat leen ko bu un ak ñi newoon ci ginnaaw est kenn yor na fusil bu mu yor ngeen xool nu mu tiiree ñeneen ñi nekkee nële xooluñu ko sax xooluñu ko sax ñeneen ñi nële lañ nekkee xooluñu ko sax est-ce que bokk na ñoom bu nekkoon même police ñu nekk ay gaayen xanaa kuy ñëw di lëngale dinañ taxaw ci wet ga ñoom ñëpp nële lañ taxaw bàyyi ko question la bu doy waar moo xam damay puus seen xel ci xalaat dama ne sama gars yi déglu leen lu ma leen di wax. waa ji bu muy visé di longoré fusil bu mu yor ñeneen ñu ko wër yëpp yoruñu ko moom bu mu taxawee di longoré benn élément ñëwul jege ko benn élément mu visé ko visé visé kenn jegewu ko bu doon ay doomu ndeyam la ñu bokk ndoo dinañ taxaw ci wetam kenn taxawu fa moom kese muy longoré di longoré di longoré tëll dóor wane ginnaaw gaa yi dem seen yoon. loolu leer na nañ vidéo boobu xaw ma maa ngi xaw ma nan laa koy nan laa koy nan laa leen koy tagalee ngeen xool parce que loolu il faut ngeen xool ko <laughs> waaye kooku sniper la de kooku kooku wallaay sniper la billaay wallaay sniper la yooyu boo leen xamoon waaw oh, ja ja yooyu fusil yooyu ko ñoom ay fetal lañ yor ay douze coups yooyu lañ yor fusil yooyu gaa yoruñu ko woon xeex bi yëpp. fusil yooyu policiers yoruñu ko dañ lay wax rek dañuy wax rek ñaar ñoo ko yoroon fusil à pompe yooyu noonu policiers yoruñu ko woon fusil yooyu noonu noonu xam ñaan ñoo ko yoroon ñaar ñoo ko fa yoroon moom mooy nervi Macky Sall yi ak ñaray booy yi te loolu naa leen ci gën a indilaat nag parce que loolu naa ci laajaat grand bi naa ci laajaat père dina ma wax fusil yooyu ña sniper yi lañ ko jox ña doon rey ñooñu lañ ko jox déggoon mu ne la cinq lañ kenn fa des xamul lu ko fa bàyyi boobu ba léegi loolu leer na. man kay maa leen défier bu pouvoir bi amee nañ ma won ne du dëgg nañ def enquête yi duñ ko mus a def duñ ko mus a def bu ma boo bu ma mënoon yónnee parce que xam nu ma kiiyee vidéo mais boo la ma mënoon yónnee vidéo bi nag xam nga moom ma teg ko quoi ngeen ñu ñu ñu jàng affaire bi parce que il faut ñu jàng li ma wax nii boo leen ci génnee ku ci nekk dina dina dem xooli quoi waaw non kooku pa père pale la nekk. pale la nek lu man kay moom mënuñu dem pale di wëri ku ne pale la nek père pale la nek de source sûre de source sûre dañ may lu may raconter ni de source sûre kuma gis ni pale la ne pale sama bëtt yi mako gis boy woma boy woma vidéo nëbbatuwuma boy woma maa ngi nii ma taal vidéo gis ko mu tok ci buntu kërëm nekkul sax Sénégal mu ne ma mission mom fi indi vite fait ginnaaw suba laay delluwaat mission moom fii nii benn benn deal tak tak tak loolu leer na <laughs> moom leer na naa ñu naa ñu naa ne kooku lu du ay caaxaan du ay caaxaan gaa yi rey nañ booy yi ñu indi ay sniper lañ tiire nañ booy yi rey nañ booy yi seyal nañ affaire yi def defuñu enquête jël kër gi ñu waxoon ne dañ faa def viol ñu nangu ko jox ko borom kër gi pièce à conviction boobu ñu waroon sele kër gi ñu jël ko jox ko borom kër gi. lépp jël Sidi Mouhamed Mbaye rawale ko <laughs> gars yi gars yi daal ku comprendre tul lii dootoo comprendre ku comprendre tul lii dootoo comprendre mais mais mais non grand bi mënu ma ko feeñal yéen mënu mënoo yéen mënu leen ko imaginer comme bi mënuñu ko imaginer kenn <laughs> mënu ma ko feeñal amul ni ma ni ma ni ma ma doxalee nii mënu kenn mënu ko feeñal mënu ko feeñal te kenn mënu ko feeñal kenn sa waay je intelligent de. si super intelligent xaw lan la amé du tok dox aw ko si super intelligent damay codé sama mots amna sax yuma ma waxul amna yuma faté amna damay codé sama duma ñew di sané ko ni dama né jinne amul ku mëna xam jinné sax mënu ko xam kenn mënu ko xam ku man ak mom té man mako sédel ni buñ doon tek paaka ci put duma wax man lool mako sédel bu ñu doon teg paaka ci put du tax ma wax te chaque jour dinaa fa dem di jëli di leen tagal lépp di ngeen ko xam di ngeen xam ñu leen di jiite di ngeen xam bandi yi lépp di ngeen ko xam boo leen décidé nag desaat ak ñoom yéen a desaat ñoom de am na ñuy topp ñooñu xamuñu ñooñu sax ñaata sénégalais ñooy topp ñooñu pour wut ñu lekk wala pour wut weccet yenn kelli ñu leen di iri di leen tëddee ñaata xamuñu lu xew xamuñu lu xew. loolu moom waxoon na ma ko del loolu moom waxoon na ma ko del jël del jël note mais man nee naa ko sama bopp laay noté mais waxoon na ma ko moom bul ma vidéo bul ma caméra bul ma screenshot bul ma bul ma enregistré boo buggee nag del noté loolu moom wax na ma ne ko grand t'inquiète man sama bopp bi day capté sama bopp bi day capté comme pas possible mémoire moo yor moom pour capté la loo ma sànni benn mun fii 15 ans boo ñëwee 20 ans mun naa la ko wax boo buggee say mémoire di capté benn benn benn secret la mooy dell yeewu fajar di jàng mémoire boo tam boo tàmmal quatre heures cinq heures six heures du matin mémoire boobu loo loo ëf ci nopp bi mu des sama ja àdduna yëpp quatre heures cinq heures six heures du matin laa doon jàng ba tey dama ko tàmm heure boobu fu ma fekk damay yeewu fu mu ma fekk damay yeewu loolu moom secret la pour xale yi di jàng boo buggee bañ a fàtte benn leçon mun ko tarifé 30 ans del yeewu 4 h du matin di jang 4 h 5 h 6 h boko ko lo jang day mok muy alcorane muy arab muy lo jang lo jang day mok ma ne grand waxal rek man damay capté damay capté ngi non kon sama gars pour vidéo baña gudd gudd yoy nga xamni ne dañ ko mëna jël tag ko jobat ko parce que c'est intéressant te loolu laa ci bëgg li joxe naa ay indice yu garaaw nag yoo xam ni ku ne war nga ci bàyyi xel dama bugg ngeen jël lépp yóbbu man maa ko wax je l'assume man maa ko assumer dama bugg ngeen jël affaire yi dagg ko nu ngeen ko bëggee yóbbu ko ngeen sànni ko ñi ma ko wax duñ ko dindi duñ ko teggi point mënuñu ko cee dindi man maa leen wax loolu point ñu ma fi tuddu ñep point mënuñu koo dindi point té amna na yeneen yu ñëw nak yalla ma yalla baye père rek mu may renseigner ndank may ñëw diko partager gën inshallah sobe allah benen yàlla yoon sax dina noter par ben ben, parce que légui néna ma yu ma wax yépp dafa bari won mu ne ma del jël ben par ben ñu tok ben par ben, sujet par sujet

ma ma nga xam ne bu ma demee ci moom moom laañ moom la ñuy débuté live bii di ñëw pour lool la ban sujet ngeen bëgg ban sujet ngeen bëgg a xam ci yi ma wax tey yépp boo xam ne bëgg ngeen xam dëgg-dëgg lépp lu ci nekk laaj leen ma man ma dem ne ko askan wi nee nañ bii lañ bëgg a xam problème bi ma dem laaj ko ci loolu noté lépp indil leen ko Maître El Hadj Diouf ah Maître El am na deux yu waxagum Me El Hadji Diouf violam bi attouchement sexuel bi dossier boobu tam laal naa ko tey boo leen bëggee ma indi leen dossier Me El Hadji Diouf bi lépp ku jigéen ki lu mu tudd fu otel bu mu ko yóbboon parce que wax na ma turu hôtel bi sax nag déjà dama ko fàtte mais wax na ma turu hôtel bi wax na ma turu fu mu fu mu ko jéem a violé nu mu daanoo ci nu mu daanoo ci poojam bi lépp commandant bi bu mu ñëwee. porte maillot boobu nag lépp affaire de la justice drogue bi oui affaire de la justice mais dañ boole wax ma benn nag ma ma mun a moom nga xam ne moom laay kii Maître El Hadj Diouf ok kon léegi nañ dañuy dem ci Maître El Hadj waaw dañuy dem ci Maître El Hadj Diouf buñ jógee ci ma bu ma koy laajaat incha xam naa ma coupé nii dama koy woo. ñu ñu débat ci maître El bi Diouf calmement waxtaan ci bu baax ma noté lépp indil leen ko bu ñu jógee ci maître El Hadji Diouf affaire Sonko Adji Sarr bi moom it lépp wax naa leen daal nee na Macky Sall ku ko yéex a yéeg la wax naa leen tamit Mamour jàll moom monté bagaas yi wax naa leen tamit porte maillot métro 2 foofu lañ commandant ba kon hôtel ba soriwul foofu te indi si naa leen indil hôtel bi boo leen demee Porto Mayo di ngeen gis hôtel bu ma leen di wax xam nga maa ngi fii ba Canada yéen a ngi France yéen a ngi pare Paris toog leen bu leen ma wax dara ma wax leen hôtel bi Porto Mayo tu commandant bi lépp ci maître El Hadj Diouf éjaculation bi mu def ci pooju xale tubaab bi mineur bi ñii ñoo ñàkk jom ñii Hmm? dinañ ci ñëw kon sama gaay assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh euh allah Abu ah, ma leen waxe hôtel bi leen fay dem non do lan fa dem hôtel bi yoonu neew ci <laughs> fu ko yobon la rek yulli wuli tulli non mais grand bi tam wax na ma ay affaire bu wax na ma affaire bu garaaw. loolu tam loo mais loolu est-ce que jar na ma wax tamit est-ce que jar non grand bi nee na wax waxam la waxam la du samay wax tamit damay rapporter rek te moom dafa bëgg ma wax grand bi nee na te lu leen jàmm nag grand bi nee na père nee na nee na Yërim Seck violewul booy bi nana bob moy 5e fois bu yerim sek iree boy bi di kolal, laal gelam la won <laughs> nana yerim sek muna boy yerim sek da viola boy violé booy bi ko waaw mu reetaan <laughs> muna ma dedet gaay buñ paré pour yerim sek lañ fa jaar yerim sek da doon doxane boy bi di gérer booy bi di diw booy bi di yóbbu booy bi di ko diw ba mu commencé di attaquer système bi nekk contre pouvoir ci la ñuy ci bi yuuxoo viol ñu topp Yérim Seck <laughs> nee na bu jàppee loolu ba léegi Yérim Seck da leen a may jàmm <laughs> <laughs> ma ne ko père loolu grand mu ne ma billaay booy dama lay wax rek dëgg te yàlla tax yërim def ma dara mais yërim violewul booy bi de ne yërim booy bi gelam la woon da doon iri di ko diw la cinquième fois ba mu ñu commencé moom xamul ni ñi ko topp en filiature mag ñiy saaga mu ne ma mag ñi saaga di ñu waxal lu ñaaw ñu topp ko en ba mu ko duggalee ci auberge ba foofu la ko doon iri di yóbbu ca iñeem coup bi lañ na ko rabaj jàpp ndaw yi ne ko dafa violé ñu jël dossier bi papa magistrat la woon buubu taal yàlla ko yàlla yërëm gaañu na sax papa yi xale boobu magistrat la woon buubu taal gouvernement bi loolu lañ jàppee Yérim Seck moom lañ ko poñee moom lañ ko poñee xoj munul wax nii moom lañ ko poñee <laughs> foofu lañ ko poñee ci la leen Yérim sekk mayee jàmm ba suñ jonn yàlla tey donc sama gars yi nañ moytu daal nañ mën nañ sànday yàlla moo ñu ko boole mais nañ moytu nañ moytu bu baax a baax a baax hmm, nañ moytu bu baax nañ xam fu ñuy teg suñu tànk bu may waxee loolu nag leader yi laa wax leader yi waxuma ay comme sama genre gi ah, man je m'en fous ah. man moom je m'en fous ah. vraiment dawuma coow wallaahi man bu doon man la nii benn booy génn yaa ko laal ma ne ko laaluma ko dama koo diw ba mu tooy taxaw fële mola moo laa yow kii nee na laal man laaluma ko dama koo diw ba mu tooy xepp maa ngi nii loo ne wax te bu bëggaatee léegi ma yóbbu ko taxaw fu dëgër leader yi nga xam ne yi ngi leen di jéem a di len galgal di leen gàllankoor di len pexeel nañ góorgóorlu nañ dand sori jigéen ñi nañ len dand sori bul laal bul jege buñ ci bëggee génn ndax Sénégal politique loolu kese la affaire caga affaire jigéen lañ lay jaarale moo ko violé moo ko diw moo ko laal ñiñ fa poñe ñëpp te mënuñoo yëngu loolu la caga bi jël silibam wala vidéo ko muy lambar lambe rek euh, bu ndaw walla wala wala euh, silib silib bu weex bu am ay kii kër yu xonk yooyu lañ lay jàppe moytu leen yooyu moytu leen yooyu ku nekk la ngay woote xam nga Yérim sekk boobu la fi nekk nag buñ ko génnee sax mooy boobu mu fi nekk naan wuy man damay woor tous les lundis et les jeudis bu mu taxay di wone ni moom ab wëliw la Yérim sekk damay woor tous les lundis et jeudis gars yi ne ko da time tous les lundis et mi ngi nii vidéo baa ngi am da ngay violer tous les lundis et da ngay yóbbu hmm, xale bu ndaw nga jàpp ko di ko yóbbu ci ay hôtel tous les lundis et jeudi depuis boobu la Yërim Seck waxatul léegi day woor lundi et jeudi ca la bàyyee woor lundi et jeudi télé ba la taxawoon sonal ñu fii ay jullit extraordinaire laa damay julli bay naaw damay woor tous les lundis et jeudi sonal gouvernement bu ñu indi na ko yee eh, da ngay time tous les lundis et jeudi di tëddee tous les lundis et di njaaloo tous les lundis et jeudi mi ngi nii booy wax di dee mu ne muut moo yóbbu ma jàmbal jaañ tey mu ànd ak Macky Sall mo yobbu babakar gay tay mu ànd ak Macky Sall mo yu moo suul Jom Bas Jaw moytu leen moytu leen moytu len moytu leen moytu leen moytu len xale dañu fess de ku bayul yap ji ndaw ji sew ji yap bu amul yakh bi moytu leen wax naa leen ko nag moytu len encore une fois moytu non bëri luma waxul bëri luma waxul même même même a Ngouille Ndiaye am ci ay affaiream lan moko ko wàcce ko de mais Aly Ngouille ndjay nak gorom motax quoi rak jabaram mo def mo def ma def vraiment lu lu Aly Ngouille Ndiaye doomu ndey Macky Sall ministre de l'intérieur foo ñoppatee Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye yuuxu bu ñu demee ba Macky Sall wàcce ko suul ko dafa am lu xew de histoire boobu expliqué na mais loolu dinañ ñëwaat après Aly Ngouille Ndiaye maa ngi dossier tamit dossier am nu goro bi def ba daane ko ba yàqal ko lépp maa ngi dossier am moytu leen daal laa leen di wax. moytu leen ñi leader yi woote ay ay wëlliw ay yàlla kaamil ay man xaw ma na man woo man man bandi laa woote man bandi man man moo laa man moom bàndi laa moom boo ñëwee ne da ngay wut ay vidéo xaw ma ma caw la caw yu tar yu tara tara tara tar tar ba nga fàtte fa waxuma la sa vidéo de vidéo bu nga indiwoon sax da ko fay fàtte say caleçon sax sa string sax di ko fa fàtte ma yóbbaaleel la ko man quoi man moo laa man xaw ma kan de dama ne man man moom ab bandi laa quoi man wooruma wooruma lundi wooruma samedi wooruma dimanche wooruma man bandi laa bandi wuyu wuyu bandi salte bu teng bu teng booy dof dof lu ñëw xaaral nañ la fay nañ la fay nga ñëw ci Mollah dinaa la caw a caw ba nga saw sa lal bi caw la ba nga saw ma nga fàtte fa vidéo ba fàtte fa sa string fàtte fa sa sa soutien ma woole na la bàyyi nga fi soutien bi ak string bi ak say carax video bi sax mi ngi ni caméra ba ngi nii saa yoo paree ñëwaatal jël ci ko pour muy clair woto wuñ dara ñi ngi ni ay bandi salte lañ woto wuñ dara pour muy clair woto wu tous tus du mo waliw du ma du khutbu samaan wu ma ci asaman si ñëw benn boy tegg la tegg boy mbedd street street life street nigga la bandi <laughs> nay leer nak kuñ kuñ fay nga ñëw ci man di nga yaqku de ndax bandi laa te sama fu moo ko def defu ko ma ne ko maa ko def ci ci fajar laay wàccee gaa yi kay fajar balaa nodd baa jib ma ne maa ko def man la de te dama koo xeeb nag bokk na ci kaa yi ndaw man moom kuy wër kaa rek ñëwal ci man ma jox la dix mille kaa nga yóbbu te bu ma tëddee nelaw ba yeewu nag yandoor te kooku bu ñëwaatee ma kaawaat ko kaata ko def ko kaa <laughs> nay leer moytuwuma tey moytuwuma ëllëg moytuwuma ginnaaw suba ku ñëw ku kuy wut sabañ ma sabañ ko ko loolu leer na xanaa jël leen loolu dama ne moytuwuma tey moytuwuma suba moytuwuma ginnaaw suba kuy ñëw di dof doflu di cëppi cëppi ma suqi sa laaf saañ sabañ la ko diw la ko ne la demal diwoo ko kooku leer na dama teel a sama bopp man dama teel a sama bopp nay <laughs> leer de day leer de ay ay damaa julli ba fii ñuul ak ay xoola man damay kii damay naaw par guddi man damay yooyu man yooyu naw ma ci de naw ma ci de ab baat di la laa loolu leer na mbaa kon nag kuñ fay ngay ñëw ci man pertement la kuñ fay demal daane kii nii mag ñi daane nañ def demal nga daane ko kuñ fay nga ñëw ci man di perte de di perte dix perte lest te di nga rëccu noonu pour mi clair kon nag leader yi nga xam ne ñooy leader politique yi nga xam ne dafa am yu ñuy woote di am yu ñuy incarné nañ moytu mba xam dafa am lu ma def temps yi man kay ci def laa dëkk ci def laa dëkk de man mii moo laa rek ci def la dëkk de moo laa defkat la moo laa defkat la de defkat la dawul dem ginnaaw te du rëccu dama ne dawuma deltuuma ginnaaw te du ma rëccu te faale ma te loo ma ne yaa ko def bu ma ko defee ci saa laa ne maa ko def ñu jàll ci leneen kooku kay moom <laughs> biri biri dawul coow man maay biri biri daw ma coow de maay Poutine Poutine Vladimir Vladimir <laughs> Mor Jong-un daw ma coow de biri biri laa kuy ñëw ci man ma sañ la sabañ la ko diw la diw la ko ne la demal ci waa ji nga fay nga fàtte fa sa string fàtte fa fàtte fa sa carax fàtte fàtte fa sa soutien gorge fàtte fa vidéo caméra buñ la joxoon pour muy clair saa yoo pare rek ma la ñëwal jël si ko voilà man moo tax bu gars yi gi waaw tool, xam nga internet bi <laughs> ma ne ma yow man man dinaa daw man dinaa daw man da ngay ñëw may naaw da ngay daw may naaw di ñëw di ñëw ci yow ngay ngay ngay daw ma ngay dox may daw ngay ngay daw may naaw ji la jub si moom kay day leer sama gars yi des fois ñuy waaye moo la booy moytul gars yi xam nga gis naa benn gel fi ma ne ko gal bu ci ñàkk sa fayda ba ñëw jox ma ko ma diw la diw la diw la diw la ko diw la diwoo diw la daw la jox la ko pour muy clair ñàkkuma fayda de ñàkkuma fayda de pour muy clair loolu leer na ñu ngi noonu daal affaire yooyu ñuy def noonu gars yi di daane gars yi di yónnee ay jigéen ak ay ji comme ñu def jombas jaw ak yooyu je m'en fous je m'en fous man même loolu bu ma ko deful tamit nit bu ñëwee di ma recherche ci loolu dama ko koy defal pour mu dem yoonam dama ko koy defal est-ce que comprendre ngeen def ma dara maa ngi nii toog cool nice mais bu ñu yónnee nit pour pour pour pour man dama ko koy defal ba pare jox ko preuve na ko yóbbul li nga bëgg noo defal naa la ko. mu ngi noonu na gars yi moytu daal na gars yi moytu mais information yaa ngi ñëwaat sama gars yi information yaa ngi ñëwaat bu leen daw bu leen dal ginnaaw <laughs> temps yi moom maa ngi refi temps di leen di leen jox te dinaa leen indilaat dossier El Hadj Diouf bu leer nañ incha allah bu grand bi dawul nag bu grand bi dawul waaw bu grand bi dawul quoi incha allah xam naa tey moom foofu dina xaw a <laughs> dina xaw a yëngu tuuti quoi. nga xaw a yëngu tuuti mais El Hadj Diouf ci man mosuma xam ne yow ndekete éjaculation <laughs> éjaculation précoce da nga koo am man maître El moo bon rakkat bu muy xëcc fermeture xale bi balaa xale bi di bañ bañ lu moom daa am la ci booju xale bi. ilaha <laughs> illallah man boobu ma ci gën a yëm. ba xëcc firme diir xale xale bi di bañ bañ lu muy jéem a xëcc zipp bi rek tag buy buy bu ma xale daa moom de yàq na pooju xale bi bu yàgg ñun ñoo bëri ay pervers non ndoy jo auzu billahi mina shaytan rajim gars baa mu ñëw dem waay baa mu ñëw dem waay

jaarama one love ñi yend ak jàmm peace